ba mu àgg ci at mu mujj ma nag ci njaareem la sëriñ bi xëy bis wax ne di waajal nattu yi ndax saa su masaan di bëgg agsi da ko yëg di ko fàggu suñ doon xamal ko ni ko say nattu jeex na sag pay ci des nattu yi itam ni mu daa demee rek pay gi noonu lay demee saa su accepté may gu la suñ joxoon nu mu toll rek suñu borom dana ko furaat ba mu toll noonu moo tax màggal gi saa su accepté mbirum sëriñ Tuubaa fu mu agsi woon rek day tollaat nu ko ëpp mu wax nag ne bis bi bëgg na ñëpp santale ko ci yàlla li taam lu ci waay man li taamu la ci ganaar ba ci giléem kon bis la boo xam ne sëriñ bi dafa wax ne na ko ci ñëpp santale yàlla ngir xéewal yu rëy yi nga xam ni suñ borom defal na ko ci ngir mu bëgg ñëpp sant ko ci yàlla moo tax ci géej gi laata mu fay bàyyi ko la ko bindoon xamle ne yow ma sabti inda galwa بعد جهاد وفراق البلوى الحمد لله الذي قد راد لي العدا والساق لي أغراضا فزت لدى قلوها وعند بأفلي بما به أنير كل محفلي كون بس بوبي هك نجا خمنا تشيلا وخنا ساسو أكسي بجنا نيبوم نيو سنت لو تيالا مجانو سنو برامتم نكو مبوالم لنجا خمنا liggéeyal naa ko suñu borom ba suñu borom dama ko may ci bis bii bu ma àggee ci sama réew yow yàlla maa ngi da ñaan naa ko bokk ak ñëpp lii aw silil la si uridu wan faxi bi yàlla war a yaa moo xam yaan amit faxi dellu waxaat ne lii kun bikun sarmadan wa jaal masir yaza jawfal fara lil wara al maharini jaal rujuci ila qawmi saadatina war takfina fi naa yow ma jamihal xalqi niiraana loola war sëriñ bi santaane wane képp koo xam ne mbégam sa mbéga bis bi na nga ko sant la yàlla bàyyiwul kenn nag moo tax Cheikh si sëriñ bi nee na ngi koy yëgal jullit yëpp di ko yëgal taal bi sëriñ Tuubaa yëpp nga xam ne ñoom moom ñoo ko bokk ndax xam ne ndigalu sëriñ bi la sëriñ bi ko santaane woon ca njaareem ba ginnaaw bi bi fi Cheikh Mouhamadou Moustapha ku ci daa ko defee sa kër bi Cheikh Mouhamadou ak seen nag wax ne tuxal si la ko Tuubaa ngir bëgg mu nekk ab dajewukaay ci jullit ñi ñëpp di fi ñëw di siyaare si dëkk bu tedd bi di Touba. loolu moo indi màggal bi bu fii tey kon sëriñ bi nee na mi ngi soñ ñëpp di ci sant ñëpp. njàngum alxuraan bi itam sëriñ bi wax na ne ni mu ko daan santaane noonu rek la koy diglee ba tey mooy kenn ku ci ne na nga ñetti kaamil ginnaaw buñ ko ubbee ci bisu jëkk bi fii ba weeru safar wi di jeex mi ngi koy ñëpp kenn ku ci ne nga jàng ñetti kaamil. comme na nga ko daa digle dara soppiku ci ñaan ak ginnaaw bu loolu jàll itam gàmmu gi ñu ngi koy fàttali ni ko kilifaam yi jëkk daa fàttale te Serigne Saliou daa ko wax nga ko Serigne Touba fonke woon kon loolu itam buñ ci àggee mi ngi koy mi ngi koy diggalaat taal bi yëpp fépp foo xam ne kër Serigne Touba am na fa nañ fa dem dundal ko fa fépp foo xam ne kër Serigne Touba amu fa nag bokk julli jafe gën a jege nañ fa dem ànd ko ñoom di sant nag mboolem mbokk yi. di leen gërëm di leen sant ci seen taxawaay ci moom ngir xam na ne liggéey Serigne Touba bi mu fi def ànd koog yéen yombalal ngeen ko ko lool te yéen ñëpp xool leen ci jëmmam lu may jëmmi Serigne Touba kon nag mi ngi leen sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal Serigne Touba mi nga xam ne moo leen tax di jëf yàlla suñ borom fay leen kenn ku cee la muy jëf lu kawe jortam di sant itam mboolem seexi Serigne Touba yi nga xam ne kenn ku ci ne. la nga yor Serigne Touba la ko def mooy ñi àndoon ak Serigne Touba kenn ku ci ne waxtu ne sa jëf la seen maam yi daan jëf waxtu ne yéen a koy yeesal di ko fàttali lépp lu mu digle yéen a ngi koy def lu mu tere ngeen ko bàyyi di sant itam mboolem taalibe Serigne Touba yëpp bayiwut kenn di jokk it bokku lislaam gi ci mboolem këri diine ci Sénégal yëpp bàyyiwu ci kenn ñaane itam ndigal lii mu santaane woon ci dëkk bi yéeg na ni ngeen ko defee te ñaane loolu jublu ci dara. lu weesu xam ne dëkkub sëriñ tubaab bi ab dëkk ma boo xam ne war naa méngoog dëkkub lislaam war a méngoog ni ko Serigne Touba bëggee waaye ngeen xam ne euh, jëfe ndigal moom de ci Serigne Touba waxoon rek ne woon na xam ngeen nu may xamee li ma leen digal baaxoon def ngeen ko ñu ne ko déer Mbàkke mu ne waxtu bu ma sante ni day am lu jug ànd moom bu jugee bu jëfee ndigalam mu dëkk moom bu jëfewu ndigal nag day dellu siwaat ci man li ma xamal ne dem naa waaye amu fu ma ne kon nag képp ku jëfe ndigal li itam na nga xam ne njariñ képp ca topp ndax moom kat ku am yërmande li ci yéen ndax moom lenn mu yor ko bu soñoon kenn du am tumburanke wala kenn di ñàkk dara ngir jëmmam wala dara ci metti di ko dal ngir jëmmam moo tax yërmande jooju rek moo tax na ngeen xam ne ak defe rek la waaye ñi ko jëfe ndax yëg na ni ñëpp ko jëfe nag kon mi ngi ci sant ñëpp di ngeen dina ñaanal itam kenn ku ci la ci nurul lu metti ci yow na suñ borom defal la ci ko sa سيدنا توباي توباي الله يرزقه في يومك ويسنجر تاني خم نه شو يبرو وحنا تي القرآن عسى أن تكره شيء وهو خير لكم لا لينج بين درة فكنا مو جنتيو عسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا تكون يخم نه أموري صادق مم لا شيخ عبد الله ما كان سيدنا توباي في ركورك موي بخدمة أو بحب أو هدية ترى موي دي لجيه سفسرين أكسبو أكجفين دي علم بايترم لارك يبقى موي بورك سيدنا توباي kon nag mi ngi ci sant ñëpp di gërëm ñëpp bis bii nag di màggal gi ren mu ngi war a dëppook àllarba euh, fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar dëppook juróom-ñetti fan ci weeru novembre yi ñu nekk ci weeru tubaab di chamche bi ak xamariya bi kon mu ngi ciy wax ñëpp di ñaan ñëpp màggal si ak jàmm te ñëpp ànd ak ànd ak ànd ak xéewal ak jàmm ñëpp itam ñëw màggal si Serigne Touba siyaare si ko delluwaat ci jàmm. suñ borom aar ñëpp sàmm ñëpp suñ لمستحق قائل في محكم تنزيل وآياتي وآتي كل ذي حق حقا ثم الصلاة والسلام على فاتق ردخ خاتم أهل سبق سيدنا محمد وعلى آله وأسابه أهل الصدق والحق أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي téléspectateur دنيا تي TV ñu لين leen di من foo leen mën a màggal bi nga xam ne tabaarakallaahu moom la ñuy defal plateau spécial xam ngeen ne boo leen déggee déclaration boobu nga xam ne Serigne Bass Abdou Khadre jotal na ko ci ndigalu kilifa gi sëñ Sidi Mokhtar ataalallahu umruhu wa ayaduhu wa nasara ngeen xam ne ñu ngi jëm ci màggalu Touba bi nga xam ne comme ni ko Serigne Moussa Ka waxee xarajtu yowma sabti samina asar li xidmatil muxtaar waaw li xidmatil muxtaar looloo ci am solo fii chehri safar kon tey mooy première bés bi looloo tax nag seen télévision DTV xam nga nu mu ko yàggee def ci màggal gi nu ko yàggee def ci événement bu am ci réew mi ñu ànd ceeg yéen noonu rek lan koy defee moo tax tabaarakallaahu ñu ànd ceek Serigne Khadim mbub bii nga xam ne moom dafa tuddee boppam sax géwélu xaadimu rasul dégg naa ko tabaraka mu nekk ci kër gi tabarakallahu euh, mi ngi toog ñu dalalit tabarakallahu borom xam-xam boo xam ne aalimul allaama la ndax dina doy sëkk rek mu daan ànd ak sëriñ Murtada Mbàkke mu daan ànd ak moom fu bari muy sëriñ Moodu Jóob mi borom xam-xam piir la yàlla xam na ko ñu ànd ak tamit al oustaz Moodu Njaay waaye li ma jaaxal mooy njóobeen ak njaayeen tey laa am xam naa nag ñaari njaayee fi ne waaye mm-hmm. benn jóob moo fi ne waaye ñu amaat beneen invité boo xam ne mi ngi ci yoon wi mm-hmm. jóge Touba di ñëw moom it ñu ngi koy xaar mm-hmm. euh, balaa ñoo tàmbale sëñ Xaadim yow laay njëkk euh, jox nga joxe sa kàddu nuyoo ba pare après ma jox euh, sëriñ Modou Diop sëriñ Modou Ndiaye tabaarakallaahu ñu nuyoo rek ñu door a dugg ci waxtaan bi bisimilah. waaw oustaz maa ngi lay nuyu bu baax maa ngi lay siyaare di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa jullit yi ñuy seetaan ak mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu. waaye di jiital ci sunu nuyoo Cheikh sidi Muxtaar Mbakke. yal na ko sunu borom bàyyi ja yàggal ko fi. te naal yi mu naalal maamam xaadim rasul lépp mu àggale ko. te lépp mu def ko ak sagoom ak njabootu Serigne Touba gi ko àndal ñëpp. oustaz ñu ngi am mbégte bu baax di ànd ak euh, sunu gan ñu tedd ñi nga xamante ni ñoom ñëpp ay taalibe lan waaye ay jullit lan ñoo xamante ni ñëpp ñu ngi préparé lu tubaab ba nga xam ne moo waral sunu plateau bu spécial bii nga xamante ni mooy waajal màggal gi. oustaz jërëjëf Serigne Khadim. ah kon sëñ Modou Diop. aouzu <clears throat> billahi samiil alim min ash-shaytaani rajim. bismillahi rahmaani rahim. الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على من أنقذنا من نوم الجهلة والغفلة والخسران سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين نجي sant sunu باخ bu baax a baax di julli ci sayyidina mawlana muhammadin صلى الله عليه وسلم دي دلو سنو kóolute يصلوا وسيله مع الشيخ احمد الخديب دي جيل نيوبيك زياد بيب ديكو تخ ديكو تك تي لوخول الشيخ سيد المختار يعني سلو بروم مو ياغال كو في بن مولم نال يوم نال تل الاسلام تخ لب مات تا ني اندوكو اك موم واي دي نيي كيب كو خامني سول غا سدال تل الاسلام تخ دي نيي ني تاد ني nga xamne سيرني استاذ سوسه نداي خامني لي تليب تي موم لا جار دي نوي سونو مبوك طالب مي سيرني خادم اك سونو مبوك طالب ليغا خامني مو نيت سونو ويت مامي تاميت لي مو واخ تاني بوك فاسيني دوغو نان سونو بوروم ني دوغو تي بسم الله الرحمن الرحيم يا قال لكم الحمد لله رب العالمين ناكون باتي رك ان شاء الله تبارك الله لو رافتنا آه، سيد مودو جوب تبارك الله سيد مودو نجاي نا ما نغلي جوخ صاح نجوخ بين ني خاوا جيل سا سانت بي بروم باغاز نعوذ بالله بسر نو فعل من شر ابليس حيث مقضى ركضه نقول بعد الابتداء بالبسمله والحمد والصلاه ثم الحوقله رب اعين العبد ليتم القصد عونك يا معين بك نستعين ولا حول ولا قوه الا بك يا رب العالمين asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki julli li bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam santam di tàmbalee nuyu bi ci ñi seqal plateau bi ñu ko waxee rek sunu kal bi suñu Modou Diop ziar bu baax itam ci nuyu yu am solo yi eh, Oustaz Socé ak suñu xaadim di siyaare bokki ñaan sunu borom subhaanahu wa taala bi mu boole ko mu gërëm yaa rabbi yéen itam sallallahu alayhi wa sallam daan wax saxaaba yi bu ngeen rombati dëri àjjana yi na ngeen forto lekk te naan ñu ko laaj lan mooy dëri àjjana yi mooy mooy jataayu na suñu borom boole jataay fi jataay yooyee te yàggal fi kilifa yi Cheikh Sidi Muxtaar ak mboolem jullit ñëpp euh, tabarakallahu li arab bi wax ne isa qaalat xazaami fa saddiquha fa kon ñi ngi tàmbale tabaarakallahu way sëñ tabaarakallahu khadim ci yow lay tàmbale ndax xam naa yow sa ciofel ci xaadimul Moustapha Serigne Touba dafa ne nag man zanna ni xayra xadimul Moustapha inni axdimuhu bi Moustapha xam nga lu yéeme inni axdimuhu ila duxulil janna daaril xaraari wal munna wal minna kon moom léppam Seydunaa Muhammad la waaye sëñ xaadim ci yow laay tàmbale su ma la doon laaj ne la kan mooy xaadimul Moustapha loo ma mën a indil ci loolu waa xam naa dinañ lott ci wax dëgg dëgg kan mooy dëgg dëgg sëriñ Touba ndax at ko xam-xam bee des na ci ndaw loo xamante ni da ngay jóg di gëstu kan mooy sëriñ bi ba jël sa bopp tudde ko géwlu xaadim rasool ngir bëgg a xam ci moom dara waaye ci gàttal rek li nu mën a wax mooy ñun ñi nga xam ne ñoom ñooy der bu ñuul ndam li ci sëriñ Touba am kenn mësu koo am ci der bu ñuul li mu liggéey lislaam ba lislaam am ko tey fii mu àgg ba moo waral bis bi mu woote ko di ci sant sunu boroom ba sunu boroom sampee suufam sii ba léegi mhm. asamaanam si tiim ñu kenn ku ñuul mësu koo am loolu rek doy na sëkk i xam kan mooy sëriñ Touba ak dayo bi nga xamante ni moom la ko sunu boroom jox mu doonit koo xamante ni ni ma koy faral di waxee toujours ci baas yi sëriñ Touba ñi ko topp kenn ku nekk atte nga jamono koo ci tudd rek Cheikh Ibrahima Fall sëñ Daam Abdourahman Lo sëñ Massamba Diop Sam koo tudd ci mag ñi àtte na jamono mat sëkkit la mu doon waaye sëñ moom bi mu bi mu dugg see ci seen biir kenn xamut kañ moo sëñ Touba sëñ Touba coobare son boroom la rek su wàcc seen biir ndax fekkoon na leen ñuy jaamu yàlla fekkoon na leen ñuy wër yàlla waaye kin doon wër sëñ Touba da leen a gën a xam fa mu nekk ne leen mu ngi nii ba pare gën leen koo ragal ba pare dàq leen koo jaamu gën leen a maandu sëriñ bi. bokk na ci lim fi indi ba pare nag indi loo xamante ni bu ma doon wax aw feemam dama naan feemu boppam la xam naa loolu sax duma ci sori ndax ñoom Baye Modou Diop ñii toog ñoo ma ci gën a euh, gën a mën a xuus ak sama sëriñ bii waaye man li may insister rek mooy li nga xamante ni moom la DTV tey ren nar a taxawee màgg màggalu Tuubaa nga xamante ne dañu jël seeni matuwaay yu mat sëkk war a màggali Touba barki démb rek lanu ànd man ak ñoom ak euh, Mansour kilifa kër gi yónni ñu ñu dem teew ci kanamu Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne Abdoul Khadir mm-hmm. wax dëgg yàlla mooy mu yaatal na tubaarkalla macha allah la ñu gën a neex ca kàddu yi rek mooy xool leen fu ngeen bëgg ci biir dëkk bi pour placer fa pour mën a wone màggal gi su ngeen dikkee ñu waxtaan ci ma ànd ceeg yéen loola rek mooy liggéeyal Sëñ Touba Cheikh Cheikh Basirou kenn ku nekk xam ko ci ak yaatalam ak bëggam lu baax euh, yaakaar naa foofu mën naa fa yemandi ba ci kanam am na am na am na am na solo tabaarakallaahu <coughs> waaye sëñ Modou euh, euh, fi ma bëgg ñëw ak yow dégg nga li sëñ Xaadim indi lu am solo la dégg nga it taxawaayu DTV bi nga xam ne ñu ngi koy def ci màggal gi xam naa ne képp ku ci zappe mm. li nga soxla yëpp di nga ko am mm-hmm. waaw ñu ngi koy waaj ci anam bu ne tabaarakallaahu dara du du du la rëcc tabaarakallaahu waaye fi may ñëwee ci yow mooy Serigne Touba xam naa wax wax naa la ne la léppam Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne ku njottu ne man keneen laa ku dul kii liggéeyal yonent bi mu ne juum nga de waaw nee na dama koy liggéeyal ba dugg ajana ila doxolil janna daaril xaraari wal munna wal minna tabarakallahu ah ma bëgg ña gis nga façon bi muy waxee labista siyaabal majdi wal fadli wal ula wa fiika min al axlaaqi ma ajazal kulla kon boo xoolee ci ay mbindam da ngay gis ne yonent bi yemaliwu ko ak kenn walazi fàq chiwa min al baraya bil huda ata badat kat bu sama fi arshika al muazzami foofu laa bëgg nga ñëwal ma ci diggante Serigne Touba ak Seydouna Muhammad xam nga da nga wax wax bu am solo te sëriñ xaadim mi wax wax bu am solo nga xam-xam maanaam nit bu waxee dëgg day dëppoo alquran dëppoo ak xadis dëppoo ak ay abiyaat waaye pour door ci li wax ji nga wax sànq man zanna anni gayra abdillahi wa gayra xaadimi nabi fasaahi سنتوبا دافني كنجورت ني مان سنتوبا لنن لا لودول جاموب يالا اك كوي ليغير يانت بي نانا كوكو دافا جوم داي نياوال وخات ني مان زنني غير خديم المصطفى فانني اخدمه بالصفا واي ليغا وخ سانك ليغا ني تي ديغنت يونت بي اك القران اك توكي بي دا وخني كوني خادم النبي والكتاب فضل من الوهاب لا من اكتساب nek gi nek di khadimu nabi di ligel yonent bi ak alquran nena mbinel lu bayiko ci yàlla la du sax man lu ma sàkku kaw ne xaadima nabi wal kitaab fadlun min al wahaabi min iktisaab waaye nga wax wax bu am solo tey di benn fan ci shahru safar xam nga sëñ Musaa Ka ci xaybatul baxriya dafay leeral يعني يا سائلي انسى بتعزيم مانام اي موي يومي لاج سبب ماغال جي يوم خروج شيخنا الخديم بس بي سنتوبا ген خا كون واخنا بس با خرجت يوم السبت باسكو سنتوبا موكو بيندو مو نيو مو نتل وارك تي اولوف جننا بس سامدي سامنا عشرة فوكا جروم يات من شهر سفر سي وير سفر كون واخنا بس بي واخنا وير وي واي لي سي غنا دوي وار سنبي بي بيم ييني ليغيل يونتبي صلى الله عليه وسلم ñu mi ngi liggéey bi mi ngi am ci mille trois cent waaye ba ko xol ba yéenee mi ngi koy mi ngi ko yéene ci mille cent un moo tax mu bi moo wax ne wa azharal xidmata ama jay sin wa qalbuhu admaraha min assasine dégg nga liggéey bi ci mille cent treize laa ko def ci atum hijriya ci gàddaay dëppoog cent quatre quinze waaye ba ko xol bi nammee moom sëñ Touba ak bi liggéey bi amee am na presque onze ans سين ديغنتي وقلبه ادمرها من اساسين 1301 ليغي بي فين 1313 واظهر الخدمه عام جيسين وقلبه ادمرها من اساسين ياغي ديغ كون ظاهر لا ظاهر بو اندك باطن لا واي كي لا واخني تام وادخل الله في قلوب من تسبب للنقي في ذاك الصمن اخراجه في بلاد النائيه ونال فيها فوق سمع الساريه histoire saare ñu jàng xam na ne Seydina Omar Omar mhm, mhm. bis day xutba mhm, taxaw ci min minbar bi di xutba fekk saariya ma nga ci dëkk bu soree sori nga xam ne am ñu ko bëgg a dogaale mu wax ci biir xutba muy wax naan yaa saariya fil jama saariya yéegal ci doj bi léegi soo ko bëggee dégg ci jamono ji damay toog fii di wax ak sëñ xaadim fekk sëñ xaadim ma nga bama ko ci téléphone wala sax mu may gis ñuy gisante ci soriwaay ci soriwaay waaye سيدنا عمر كون امنا لوكو يالا ديفال واي ساري امنا لوكو يالا ديفال سيني توبا ني سي جامانا بوبو لا يالا جير سي خولوب توبا بي دوجول سي ني ген ماما ريوم يوب ما سي ريوم سوري واي بان ما فا يوم خامو ما فا امي وانا لا فيها فوق سم ساري ما ام تي ديغوك ساري جا الا لا ام سما ديغنت سا بروم لي مخ سانك سي سانت يالا سيني توبا دا لي ما ييني مان احمد الخادم سي يينا سانت يالا نويت شكر الله ملء الارض مع السماء خير شكور يرضي damaa yéene sant yàlla lu fees asamaan ak suuf nawaytu shukrallaahi mil al ardi sant naa yéene naa sant yàlla lu fees suuf ma asama ak asamaan xayra sukurun yëddi gën gi sant goo xam ne rek sunu borom da koo gërëm waaw moo tax mi nga xam ne nawaytu shukraka fii dal yowmi yaa samadi yallaahu zal ayni qabla rai wa chine فاس نالا يوني سانت تي بيس بوبي يالا يوم ميغا خامني زال عين قبل الراء وسين موي رب العرش بو جيلي عرسك عين بو جيدو راء اك سين بو خبول موي رب العرش كون لي نين ديف تاخواي بي لو ام سولو باسكو دا نين واني بوك نين تي ميغوم سين توبا ني سين سين ان الذي يا سروري يقمد عمل الذي يحبه فيحمد كي بان سما ميك من سين توبا تي تيس رك لا دك اي جافي واي كي بيغ سما ci cant rek lay dëkk. Mhm. kon xam na mhm. danay taxali foofu bu ci kanamee incha allah tabaarakallah <laughs> jërëjëf jërëjëf tabaarakallahu leer na. leer na tabaarakallahu li nga wax kenn mënul paase loolu. Mhm. Euh, sëñ Modou njaay dégg nga ni sëñ Modou Diop njóobeen bi lim andi man nag mosuma xam ne njóobeen sax dina am xam-xam waaye tey daal laa xam ne ndeke xam-xam fu ne lay ne. waaw euh, xusuuri xalaat. wax bu wax bu yéeme la. wa ahlu anni tafarraxat hmm. li mat illazi an u madi u xasiiru kooku cofeel passé wu ko hmm, hmm, ñëwal ma ci ci ci ci bayit bi nga ba tey rek nga ñëw parce que foofu yonent bi la rek xusuuri xalat wa ahlu anni tafarraxat li mat illazi an u madi u xasiiru tabaarakallahu eh, jërëjëf sëñ Soxna Eh, jërëjëf sëñ sëñ Modou Diop naa li nga wax rek moom njóobil bi tey moom xam na kéemaan la waaw kéemaan la <laughs> ci nekk moom wuti naag la ci daan nekk ndeysaan wallaay eh, tabaaraka yàlla na yàgg te sax amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi am na solo lool li mu ubbi mhm. am na solo lool daaneel na ñun ñëpp wallaay ndeysaan waaye bayit bi nga wax itam xusuuri xalal wala ahla an ni tafarraxat mhm. li mar xilladi anhu lmadihu xasiru loolu mhm. wax ju yéeme la ju kéemaane ju daw yaram ci diggante ab soppe ak ku mu sopp xam nga sëriñ Tuubaa ni ko sëriñ Moodu waxee léegi lëggéeyal yonte bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg-bëggam la ak nammeelam la waaye fekk na yonte bi sallallahu alayhi wa sallam mooy moo ko sàkku ci boromam. ndeysaan sëriñ Moodu junj ne ko ci weneen bayit sëriñ bi da koo wax lu ne lu ne da koo waxee nu ne. bayit bi mu waxoon bokkut ak bi muy bëgg a wax daa wax ne raama rasulullahi min ilahi mhm. kaw nii xadimahu wa abdallahi yonente bi sallallahu alayhi moo dem ci saa borom mhm. ne ko ahmadu mii na laa bëgg mu doon sama liggéeykat doon doon sama xaadim mhm. loolu yonente salaam moo ko sàkk ci borom kon kon taxsiis la ngëneel la a ak jag ngëneel loo xam dañ ko ko jagleel la moo tax mu takk ndiggam wa bàyyi ak njabootam bàyyi ay doomam bàyyi ay këram ñu bàyyi ay taalibeem bàyyi léppam ngir kan rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ma dox moo ne xusuuri xalat wala ahlu an nii tafarraxa li ma daxi alladi anhu almadihu qasiru samay kër ràpp nañ njaboot gi tasaaroo nañ dara waralu ko na lu dul jéem a ràbbal mbubbum tagg waa ji nga xam ne mbubb moo ko ràbbal ba sol ko ba solal ko rek mu moo yées ko mu gàtt ci ma mu yénente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax tagg wi ko sun borom tagg daa kawe sun borom moo ko tudd moo ko tagg moom la suñ bi wax ne fa kayfa yamdaxuhu xalqun wa xaaliquhu ajranti daaxan law fi muxkumi suwari waa nan la mbindeef rek jógee ngir mën a tagg yonente bi ba jot ko ciw tagg te fekk ki ko bind moo ko taggal boppam ci alxuraan wa innaka la ala xuluqin azim sun borom da koy seet ba yàgg mu ne ko dëgg dëgg la mën a yem foofu la aw tagg mën a yem wala sëñ bi ne man nan la ko nit mën a ba jot ko te borooma ko moo ko jëkk a moo tax loolu mu mu mu mu bàyyi njabootam gépp ak léppam laxasaayu suñ boroom dogal ni ko suñ mu waxee léegi mhm. jaxase koog noonu jamonoom te loola mooy mooy occasion bi nga xam ne ci la mën a jaar ngir mën a wéet mhm. ndax xam ngeen ne ci njëlbeenam di mu nekkee eh, ak sëñ Mor Anta Sali nekk moom di ko jàppale ci daara ji ba mujj sëñ Mor bàyyeeko lu ëpp ci daara ji mhm. gannaaw sëñ Mor bàyyi eh, jóge fi ci ci ama sasin du sori ay 1883 wala 82. dégg nga mu wutu ko ci daara ji ñeenti weer yi nga xam ne moom la soxna yi di liggéey mu nekk fa mbakki Kajoor jóge fa dem Mauritanie ju jëkk jee def fa juróom-ñetti weer dellu siwaat Mbàkke Kajoor def fa ñeenti weer nga xam ne loolu boo ko seetee at ak genn lay doon mu door a woote yoonu murid door a sos yoon wi ca la laxasaa yoon fas yéene di liggéeyal yonent bi sallallahu noonu jamonoom taxaw nag ngir fa yéene koo génn réew mi ngir lan دين سوى إسلامه لا يحمد عند الإله وبه نجدد جنن دين جرو دين الإسلام سن برام غرموكو سن برام غرموكو تلو أخوان آه، موكو إن الدين عند الله الإسلام ما يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وفي الآخر من الخاسرين ينن دين جو غرم جو جو جامو يالا جو الإسلام رك سن برام غرمو تا اليوم خام سن برام ما خال بخم نه كي نيي بيرت نغي بوكو لا ينسو بالله مو جوغ نغير سامب دين تي ريمي تواب بي تاخاو في امي مو نا دنا في امي لولو jàmmarloo ngir liggéeyal yonent bi ci lan ci wa jamono ñu dugg ci l'islam xet yonent bi sallallahu alayhi wasallam yokku ñu jaamu seen borom nako yonent bi sallallahu alayhi wasallam diglee woon ci l'islam lii kat moo la jotaleeg sëñ beeg tubaab bi muy noonu tax mu jaral ko léppam na mu daal waxal boppam ne ubaayiu al yawma rasul al mustafa bi xidmatin wa asalullah nee na tey jóg naa jaayante ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci liggéeyal ko te maa ngi ñaan sama borom mu defal ma ba rikkuwaay bu doon fecc kóllëre kóllëre gi ma façon yonent ci dinaa ko liggéeyal axdimuhu ilaa duxul janna wax nga ko léegi daa dal xaraaru ma win na dem ba àgg ci di wax ne man zanna anni annahu yakunu abada yurdihi bi xidmati bada yurdihi billazi ka xidmati bada nafaytu zannahu bi anniya alxadim bi ma wana am mislihi kullu xadim nee na ku ja ku jortu ne yaakaar jàpp ne da nga liggéeyal Moustapha sang sama sang ba liggéey bu toll bi ma koy liggéeyal nee na sa njort loola sànni naa ko ci àll ndax liggéeyal naa ko liggéey boo xam ne benn xaalim bu mel na mosu koo liggéey ci ñi fi jaar ñëpp kon loolu moo waral lépp mu woon ko gannaaw ngir liggéeyal Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba waxal boppam ne sababu ghaybati ya an allaha arada an anala minhu jaaha wa an akuna saafian li xawmi wa an akuna xaadima fi mi ñett yi nee na mooy li ko taxoon a dem gabon foofu day daal di méngoog lil Moustapha nawaytu maay sunnatul xarra wa inni ahmadu yeesalaat rek sunna si ndax ak méthode bi mu ko yeesalee suñ xaarim dugub laay wax rek lu am solo ngeen di xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi fii bëgg a bàyyi ko dañoo wax ne dafa jooy suñ borom laaj ko lan la mu mu ne ko du ragal laa fekk si waaye du lenn lu dul maanaam l'islam ji ma samp taxawal ko fi nar koo wan gannaaw damaa jàpp ne bu mu fi jógee dana dellu gannaaw suñu borom xamal ko ne ko bépp bopp téeméeri at bu ne danaa indi mu jaddit mu ki la ñu tuddee rénovateur koo xam ne day yeesal ci l'islam ci sëñ Tuubaa mi lañ mujj xam rénovateur bu mujjee ñëw jamono moo tax mu baydi woo nga ma li Mustafa nawaytu maa yu jaddidu sunnatahul xarra wa inni ahmadu yeesalaat diine yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mel na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam andiwoon loolu rek mooy yoon murid lépp loo gis yoon wi di ko def mooy diini ji ne ko sallallahu alayhi wa sallam indi woon ca ca Makka kon ca Madina Munawara jàngal ko jàngal ko julli ji ñu di ko doxee ba ci moom loolu moo waral kat léppam mu bàyyi wan gannaaw léppam dëgmal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko liggéeyal tam jaral ko lépp na mu jaral ko léppam moo xam ne la dem sun borom ma am fa dara ji ju ju kenn amul nana naa la min hujaa waaye ma doon kuy ràmm sama bu ëllëg yemal xiyam waaye ma doon liggéeykatal Mustafa sallallahu alayhi wa sallam te sax ci nee ñett yi mooy li ma taxaw dem ci géej tabarakallah kon muy jëmm joo xam ne daal sëñ am na solo <laughs> am na solo waaye dafa mel ni sëñ xaadim mhm. dafa def intervention sànq ci benn bayit mhm, mhm. xam naa bayit bi ñor na la de lil Mustafa <laughs> nga na waytu maa yu jaddidu sunnatuhul xara wa inni ahmadu looy indi ci loolu euh, wax naa ko léegi sax oustaz toj dëgg dafa mel ni sunu invité bi tamit ñuy Abdoul Ahad mm-hmm. bu mm-hmm. moom it jóge na Touba waaw egsi na euh, ñu ngi koy dalal moom it ci plateau bi tabarakallahu mm-hmm. tabarakallahu kon mën nga lil Moustapha na waytumaa yi jaddid <laughs> sunnatul xaraawa inni ahmadu oustaz li ma ñor dëgg dëgg ba ñor ma mooy méthode bi sëriñ Touba yare ñoñam bokk na ci lima ñor nga xamante ni bi mu yeesalee sunna Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi mu koy yeesalaati képp koo xam ne bëgg nga lu baax rek yaa ngi ciy roy sëñ yaa roy sëñ Tuubaa <laughs> wax naa léegi ci kàngam yi nga xamante ni ñoom la bokkal jamono mm-hmm. ñu nekkoon ci keppaaram waaye xoolal nam leen yare ci ay teggin ci worma ci am xam nooy doxale ak bépp mbindeef boo xamante ni sunu borom bind na ko nga xam nooy modaarante ak moom di saafoonte ak moom ba yëfi sax su naroon a metti na ngay jaxasoo jaxasoo ak moom ci sa jikko dina tax loola neex ko sëñ Tuubaa foofu la yare ñoñam xam naa oustaz bu ko defee ma bàyyi la ñu dalal sunu gan gi Cheikh Abdoulaye euh, Abdoul Ahad mhm. Abdoul Ahad Boussa mhm. ah, waaw tur wi rek moom mhm. tabaarakallaahu mu ne Abdou Ahad ñu ne Touba la la jóge léegi ñu waxaat Boussa kon kat ki mom tabarakallah touba la ci zaahir ak touba la ci batin tabarakallah kon serigne biñu jox la cadeau gi nga nuyo téléspectateur u Dunya TV ndax yaangi en direct ci télévision bi bismillah tafadal mashkura sheytaani rajim bismillahi arrahmani irrahim الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الحدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه wa sahbihi sawina rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisaani yafqahu qawli ñoo ngi nuyu mboolem waa réew mi ak mboolem ñi nga xam ne ñooy seetaan télévision bii di DTV di jéggalu nag bu baax ci retard bi nga xam ne am nañ ko ndax sànq la ñu jógee Touba ndax ku ne xam na ne tey ci benn fan bi dañ fay amal ay jàng kaamil waxtu bi may waxee nii inshallah allah danañ wate ay xasaayid yu cheikhul khadim ngir téré ko bis bi barakallah eh, di ndokel bu baax mboolem julit yi di jital ci nuyo bi ak siyar bi nak serigne touba cheikh sidel mukhtar diko ñaanal yalla mu yag fi lol te wér eh, di ko ndokkeel ci bisu bu baax ak mbooleem njabootu seexul xaddim eh, di nuyu sama nata yi nga xam ñum la fekk ci fi di leen di len di len siyar bu baax di ndokel mbooleem wa rew mi dal di ñaan yalla magal gi ñëpp ñu fekk ko ci jàmm ak salaam te liñ fiy ñaan ak yiñ ci séentu lépp rek sunu borom mu nangul ñu ko ci barkeb xaadimu rasul tabaarakallah tabaarakallah jërëjëf jërëjëf jërëjëf Bousso kon dañuy dem directement rek ci euh, li nga xam ne euh, sëriñ Tuubaa ko bindal boppam waaw sababu xaybati an allaha araada an anaala minhu jaaha wan akuna shafian li qawmi wan akuna xaadiman fi daw mi loolu loolu loolu moo ko moo ko xam nga uslub bi ko Sëriñ bi ndee sax moo mata a xool ah. waaw uslub bi moo moo moo moo yéeme dafa yéeme <laughs> waaw xam nga eh, moo tax ni ñi ci bëri dañu jàpp ne tubaab bi ñoo conditionné Sëriñ Tuubaa mais Sëriñ Tuubaa moo conditionné tubaab bi waaw moo ko tubaab bi ndax dafa am lu doon uti dëgg la dëgg la ki nga jël di ko yóbbu ak ki la jël yow dila la di la di la yóbbu bokkul de tubaab bi yóbbuwul Serigne Touba déedéet Serigne Touba ko yóbbu li nga wax lu wér la ndax li lay xamal ne moom moo yóbbu tubaab bi walaa wax ne xaybatul baxriya pikkib géej gi dafa am sababu zahir ak baatin ak baatin te faw mu am ndax bu fekk faw mu génn réew mi te moom fas jamono boobu li gën a mën a génn mooy fas kon faaw mu dem te am suñu borom faaw mu am ñu ko booleel te jeewal la waxee ne billaahi faaraqtu nasaara jeewali wa xayruhu qataan bila tanaawuli giñ naa ci yàlla ne jeewal laa teqali ak tubaab bi fanaal fa la leen dominé 10 août 1895 keroog la leen gañe waaye bu ñu bisi liggéey bi du mat dëgg la dëgg ndax an allah araada an anaan minhu jaa lan yàlla namm te mu war koo am yooyu yëpp waa na ko na caafi an li xaw man a mu sama sama sama sama sama sama nit waa na ko na xaadiman fi daw mi ma nekk di ko liggéeyal ci lu sax waaye itam ma xaadiman fi dawme te dawme nekkul Sénégal fi dawme ñaari fi daw ñaari version la ñaari version la waaw mi nekkul Sénégal manam li nga ne mu mu yóbbu tuba bi ndax asiru ma al abrar hina asiru ma ngi dox ànd ak gaay yu bax ya hina asiru ci jamono bamuy tukki wa zanna mu njortaale ay daa noonu yi xunaaka foofee ca ñoom asiru prisonnier la nga xam ñet asiru ben bokku la sa moom tukki firi lol bayan la asiru ma al abrar ma ngi doxon ànd ak gaay yu bax ya hina asiru ci jamono bamuy tukki wazan na mu njortaale ay daa noonu yi xunaaka foofee ca ñoom asiru ku nu jàpp jaam la prisonnier les filles. xam nga Baye Modou liy dëggalaat sa kàddu mooy. Ahmadou Ndiaye maa béy la woolu cim taax. won ko en siiru. ni ko yaay saa may seere. dinaa dellusi. waaw dinaa dellusi kon kooka day dëggalaat oustaz yow li nga wax ni. moom moo jàpp tubaab yi. Baye Modou loo loo am na solo bi mu ko bindee Ahmadou Ndiaye maa béy la ko jox ne ko yaa may seere dinaa dem waaye maa ngi dellusiwaat. gis nga mu ne masiriya kaw nii abduhu xaadimun nabi gis nga toujours moom rek sama dox mooy ngir ma nekk ki nga xam ni jaamub yàlla ba noppi di liggéey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa amrul baraya lil ilahi yasiru mm-hmm. ak mbiru nit ñi mm-hmm. waaye loolu lépp ci biir boo dem ba ci biir xasida ga mi ngi wax naan mm-hmm. basir zawil islaama bi aajilan wa kun muniiran bil islam anta muniiru na bëggal waa lislaam yépp sama jëmm ci lu gaaw nag ma nekk koo xam ni maay leeral lislaam parce que am na foo xam ne beneen bayit bu muy waxee ci xasida fa buhita allazi kafara naan wa bi uhyi ma umitu fi l islaami tafaddulan bi sayid al anami li dee ci lislaam rab ci yëpp naa ko yeesal gis nga oustaz li tax mu mu mu bëgg ko day nit ku baax te xam-xam ñàkk dëgg la dëgg la te gis nga li may wax nii sànq te gis nga sëñ Tuubaa wa yafalullahu ma yacha yàlla dina dinaa seet lu ma lu lu lu ma neex ma def ko سنتو بعد فنا تي فضل الله ورحمة الله فإن الفضل بيد الله يتم يشاء والله ذو الفضل العظيم سنتو بعد تفضيل ذو القدرة والإرادة هذا الذي يفعل ما أراد تفضيل ذو القدرة والإرادة فضلني وهو اللي أراد الحمد لله كان من ثم أورثنا الكتاب الذين أصطفينا يا لنا ناجل القرآن سيت سما جام يمن يحمد دون الله سنتو بعد جوهن بارم أورثني ربي كتاب الله يا الله دون تيرب الله وجملة الكتب بحزب الله كي لم يخ سانك ني يونتبي صلى الله عليه وسلم مو ساكو بور ليغيل يونتبي سيغ توبا ليغيل كو القران تم نون لا ساكو بور اندك سيغ توبا رام الكتاب كونه معي بلا تفارق عمري قد قبل اما سيغ بي تخ مو نيخا واخ لوم واخ دوكو بيند واخنا لا سانك تي نلا كوني خادم النبي والكتاب فضل من الوهاب لا من اكتساب ليغي بما نيك غيما نيك دي ليغيال القران اك دي ليغيال سيدنا محمد نيل لو بايكو سي يالا واي يقول لسان الحال لي كل خديم من لولا لاكاي واخ لسان الحال مو نيكال ديما ليغيال سما واجي حماك على الاكدار بالله زارعي قصيدة غو غيخ لينا لي تخا خامن توبا بي نلا لن جابون في وور لوي وورو غرور الورى غر النصارى بكيدهم وظن الظنون والظنون غرور كيغا خامن موي وور مين دي في موي ابليس مو نصراني سن بخيا وزن لو نيورت أزونونا نيورت يون نيوتون نك يو نيورت يا غرور ليدون أي ور ليدون تنيوم وأي مم نك تمسكت بالحبل المتين مرتلا وبالعروة الوسقى التي هي نور ما نجي جابتي بوم يالجي بوم جينا خمني دا سو وأي دا دغر ما جابتي واي ماغي دم واي ماغي اندنين رفيقي كتاب الله والمصطفى نبي واصحابه في البحر حين ادور ما عندك يلا ما عندك سيدنا محمد ما عندك القران ما عندك صحابي فما مانا نير لا واخ كون موتاخ يلا نمغو مو نم لول موتاخ مونو نجي نيوم دار دم نا با نيو مونو نجي نيوم دار دغ لا دغ لا كون استاذ خمنا ني تبارك الله امنا امنا امنا امنا امنا امنا صلو تبارك الله ليغا واخ آه، دوينا سك gis nga am an anaala minhu jaaha sax boo seetee ci wàllu naxu nakira la jaaha maanaam yàllaa ko bëgg a jox daraja joo xam ne kenn xamul nu mu toll waaw bu ne woon al jaaha rek ñu xam daraja ji nii la toll mais bu ko defee nakira mm-hmm. c'est-à-dire que yàlla jox na ma daraja boo xam ne nii ak jinne ak ku mën a doon xamoo na mu toll fa yàlla waaw kooku daraja la boo xam ne nit du ko xayaas ba ilaa yawmil xiyaamati saka nakira la waaw tabarakallahu lu lu yéema ayasaminillahu inda jeewali iblisa isnaadaytuhu bi yaa wali nafaali xayrillahu xablu findari bi ahlil badri usudil kadari nafaali xayrillahu fi ndakaaru kullu azan li jarru ul makaaru allamani rahmaanu fi safina Mhm. bi annani xadimu zil madina mhm. kooku leer na mhm. waaw <laughs> xamal nañ ne ma man kuy liggéeyal yonent bi laa mais eh, jeewal jeewal jeewal loonu mën a indil loonu mën a loonu indil ginnaaw ba nu sëriñ Moodu nàndalee fi mu ne nii ci ruux yi <laughs> ba ñëpp mandi xam naa ne ñëpp kontaan nañ tabaarakallaahu bu ko defee eh, nga ñëwal nu foofu ñu ngi siyaar sunu kilifa gi teew eh, di ko siyaar baax yi ci mag ñi di faral di wax rek taalibe yu mag yi mm. ñu san gis ku jóge Tuuba moom dañ lay jàppee eh, sëriñ bi lañ lay jàppee. Mm-hmm. loolu dafa am damaa jóge dañ maa mas a yónni sama sama sëriñ moom ma yónni ma jóge Touba ñëw fii. Mm-hmm. Dakar ci magum taalibe bi ma la ma yónni kooko eh, moom ak sama waajur waaye bi waxtu julli jotee def na ma ji yaay jiite ma ne ko loo tax man ma yaay jóge Touba. allah mag ñi foofu lañ nekkoon. loolu ci laa ko bi kon noo ngi noo ngi baax sëñ bi eh, ni nga ko waxee rek ci askan week lépp rek tey mooy kilifa jotaay bi. Mm-hmm. dëgg la ndax nun taalibe bi sëriñ moom loolu la ko gëm te loolu lañ sëñ bi jàngal itam mm-hmm. mm-hmm. eh, di ñaan suñu borom eh, defal la tawfeex ñu dalal dalal dalal jàmm eh, sëñ bi li wax itam mm-hmm. mooy sëñ bi wax léegi rek sëriñ bi maanaam daa yomba waxtaane ndax léppam ko bindal boppam ci Abdul bi am na bis mooy wax ne maane fu mu nekk moo ne duutu fa doon dara sëñ bi lépp la ko wax ne maani dana wax ay yasminillahu inda jeewali iblis is naadaytuhu bi yaawali wax ne ko léegi ca ca jeewal la iblis naagu ci ci ay pexe xam ne ne kii ma mënatu ko dara boo gisee ma bëgg nga ñëw foofu fit wi sëriñ Tuuba am xam nga lu doy ni yoon yónni solda ne la demleen ngeen jëli ko nga ne dew ma waaw nga waaw man ndigalu fanaan parce que ki la jox ndigal ak ki ma jox ndigal bokkul mais mais mais loolu loolu tax ma bëgg ñëw foofu mooy la jiitu la am na lu jiitu la la ko jiitu mooy sëriñ bi ñaata leetar la ko tubaab bi yónnee di ko woolu te ñëwut ngir lan xaar ndigalal borom subhanahu wa taala ba keroog bi nga xam ne yebal na maam Cerno na mu yónni ko ndar muy dem ci tubaab bi wax nañ ne keroog bi maam Cerno dem xam nga jamono boobu ni mel mag ñi waaj dajale dara ba wutal ko mbubb mu mu dëppoog jamono xay na ne ko nga ngir nga foofa ay ndar-ndar lañ te dañoo silbi si nangam ak nangam bi ko sëñ bi yëgee daf ko xam ne ko yii bu ko sol solal yi nga daan sol mooy yére yi mu daan sol nga xam ne maanaam yu doy waar lañ ne ko li may def ci ñoom ci sa yére yooyu laa ko def musal laayam yooyu yi yére yu doy waar yu raf la yooyee rek dem jàkkaarloog tubaab bi ba mu waxee ak moom dañ ne ko moo ne kii rakkam la mu ne kon xamu mag ñi ñëwee nu muy mel ne <laughs> keroog bi moom ceerande ba ñëw ko di di di di eh, ci sëñ bi te xam nga rek ñu boole ko eh, nit mu di ko muy tëbal boobu ñu ko boole loon tam di ko réeral ci àll bi yi mel noonu <laughs> waaye eh, borom xam-xam moom delluwaat ci alxuraan nujum yi suñu borom def ci jaww ji mooy mooy asama biddiw yi ci la tegtaloo biddiw xam ne biddiw bii kat moo daan tim Mbàkke Kajoor mu di ko topp rek di ko topp ba ba agsi keroog bi mu agsi ci sëñ bi wax waxtu fajar jot tàmbalee bëgg a nettali ca lañ xamee ne moom sëñ bi moom xam na yoonam na muy demee leeraay leer na nañ ci boppam ndax da ko wax na dara jërumaa nettali keroog démb ci tëkkusaan bi ngay jàkkaarloog tubaab bi xorondoom yi dox ci sa tànk maa ngi jàkkaarloog moom loolu lool lool lool loolu baatin la mhm. kon lettre yooyu ñu ko yebal nga xam ne yi ko yónnee ba tey wuy si ngir lan ndigalal boroomam loolu loolu loolu aw fit ci jamono yooyu tubaab bi fi mu tolloon nga moom moo colonisé Afrique waxuma Sénégal waaye yëpp moo colonisé am doole ba nag buur yi fi nekkoon dàq nañ leen ñee ñu rey leen ñenn ñu génn leen réew mi sëriñ seen si rey lañ leen ñi ci des ñemewuñu ñeppi baat moom ñoom képp ña ñu yónnee la ay lettre yoo xam ne gouverneur général moo koy signé dégg nga nga gàntal loola ba keroog bi nga xam ne jot na ndigalal boroomam door ànd ak ñoom ñu jàpp ne euh, da leen di wuyu si fekk ndigalal boroomam la jot bi mu ñëwee jeexal ni ko sëñ Modou waxee léegi keroog bañ ne ko nañ dem daa wax ne damay fanaan nga xam ne moo moo ne moo ci ci disposition am lañ ci la tubaab dox moom moom keroog bi ñu déparé eh, eh, jeewal kiimaan xew na foofu ndax mag ñi ko doon gunge ba jeewal foofa la meññi ko waaye foofa aw mar dab leen woo xam ne nii eh, manqué nañ am ndox waaye nee nañ sëñ bi sëñ dagan mi ngi ko ci ci Irlande tam yaa gis jën jëm joo xam ne xamuñu fu mu bàyyi ko ak si yor yoon menn mbuus duyal sëñ bi sa salaam ba fees waxul kenn dara wàññi ko at dellu ñu di seen kenn gisatu ko loolu ak fa la sëñ bi tàmbalee feeñal kii mu jóge fa ànd ak ñoom jaar lu ko gis nga ko nañ ko wax jigéen bu gàtt xëy na waxtu bi mhm. ya fa xew bari na bari na muy rëm wax nañu sax njëlëm bi mu waroon day day day doo ba raw leen taxaw di leen xaar naan leen yéen ku sa ku sa kilifa yónni nga ngay ne ci àll bi di taxaw ba mujj sax ñoom seen fas dañoo dañoo sonn ba maanaam dañ ko doon ñaan ndimbal ngir ngir mu yërëm liñ ci dox bi loolu lépp li muy tekk mooy xam na ki mu dëgmal muy muy mm-hmm. yonent bi sallallahu ngir liggéeyal ko ñor gi ko liggéey bi ñor liggéey bi ba mu doon jëmm joo xam ne ci liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi mm-hmm. ni ma koy waxoon sànq rek léppam la ko jaral mm-hmm. daa dami wa ahli wa awlaadi alfidaau lahu abdan qadiman lahu muskaana li sanada sanada nee na sama deret jaay naa ko yonent bi ngir liggéeyal ko sama njaboot jaay naa ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir liggéey mhm. samay doom mhm. jaay naa ko yonent bi sallallahu alayhi wa ngir liggéeyal lii lépp jënd naa ko liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne ci laa sukkandiku ci moom mhm. kenn fekku ci kenn fekku ci foofa ci sopp gi ko sopp dem na ba bindal wax wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa bu doon géejug sopp la lap naa ci biir غرقت في بحر محبة الرسول وارت جي بيه رضا اول خبز لبنا لبنا جي صلى الله عليه وسلم تدار توفي دكون غير ام غير سان بروم اك مو نانغول بورون سانغ رسنا نان سكر عب... أه؟ أه؟ محبة الصبي أه؟ أنا أنا عبدت من فيض الماء الغيب إذا عبد غير من من من خمور العيب نعم نعم لي لي تود خمسة ألو تصو سيني نينكو ده سيني عبارات لا لا لا لا لا يوارلا كم مصر لا رك تصو منو دي غفني نعم نعم نعم ما نام دما دتم دتم بعد بتشوله دتم دكود دتم بينكوا سك عبدت من فيض الماء الغيبي bëggu ndoxum xëy bu xanaa xam lépp lu luy ñëw tey ak ëllëg nee dama ko naan bam bam ne secc dama ko dëtam nee na ñeneen ñu dul man nag ayib lañ leen lañ leen naan loo is abba xëyri min min ayubil xëy bi ay bi kon loola min maayil ay bi kon foofu la àgg ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye dem na ba ba weesu lool ci sopp gum sopp yonent bi xam ne fi jëmantu ak yonent bi waaye daf daa wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam su jamonoon ak moom cofeel gi mu am ci moom àgg na ci buy dox ci suuf ab lexam lay lal mu jog ci bu ko dig naree jam mbaa jiit nar ko fet mbaa jaan nar ko mat xaddi wiqaayatun fii rijlil mujtaba min shawkatin wa idaaha aqraba sama lex bi lay lema lay lalal Mustafa sallallahu alayhi wasallam mu cay jógee tànkam bu ko dégg naree jam na jam bu ko jiit naree fett na ma bu ko jaan naree matt na ma foofa la àggoon ci yenn soxna moo tax li mu daj ci liggéey bi lépp lu lu mu rëy rëy ñu di ko yéem coona ya ndax xam nga ba mu demee ca Gabon foofa bis nañ mu bindal boppam ndax journal bi xam nga lu bi mooy jataaw jataaw Shakur journal la boo xam ne journal la yoonu géej gi sëñ bi ko bindal barab bu la fa xew lam fa jëflante tubaab ba mayee ko fa suñu borom may boo ci delloo li muy ko ci fekk danga ko fekk dëgg la foofa wax na ne lu dul xuruju ruux yi daj na ko foofee maanaam ruux gu génn lu dul lool rek daj na ko foofu ak na ci barab boo xam ne nii ndax natt yu ko suñ borom doon teg ña ñaari téeméeri nattu ak juróom-ñett fukk ak juróom li mu suratul baqara waaye loolu loolu sax waxuma ko waaye àggoon na ci foo xam ne maanaam euh, barab bi mu toog ci ci Mayumba yàgg gam fa yàgg ndax def na juróomi at barab boo xam ne barab boo xam ne toog na fa juróomi at xooloo ci ci nit nitu doomu aadama doomu aadama kese ak doomu aadama kese xoolal lool soof gi ko barab bi soof ci xelam rek suñu borom sotti ko nangami junni melentaan ñu sam ko ba yëre yu weex daan da ngay jàpp ne lu ñuul la sol mu yedd boppam ci la taalifi xasida almimiya alxalbu minniya fii sal yawmi xad xad salima min kulli raymin lu raymin wa bir rahmani xad alima xad zaala raynu fuaali wa maxa darani kabairi xad maxaaha ma maxallamama nawmi ibadu rabbin la sharika lahu xalbi yudabiru ayan tuutul xikama nee na sama xol bi tey fiidal yow mi ci tey jii hmm. mucc na ci jëpp ayib oh. ah, ayib yi lan waxul suñ ayib yi de ayib yi maanaam barab bi mu toog soof na ko rek te yàllaa ko fii di jëleegu ndigalal yàlla jëleegu ko fi soof gi mu ko soof ci xelam rek wala mu xelam dem ci ne maanaam barab bi kat yàgg naa fi nee na loolu ayib jooju la sama xol mucc na ci tey raxas naa ko mu set wecc dem ba ci ne samay nelaw hmm. moo jaamu yàlla ñooyam naw mi ibadu rabbi la sharika lahu xal bi yu dabbir aaya tuuti xekma su may nelaw sëñ so nee na suy nelaw sama xol bi mi ngi settantal aaya sun borom yi kooku kooku dayoo la kooku chef te te te te te tabaarakallah balaa balaa moo kii maa ne natt yi fi ne dañuy bëri bëri parce que man mi am naa ci loo xam ni yi arab yi di wax leesal xabar kal moyen ànd naa fa ak Cheikh Mouhamadul Mourtada 2003 amna ci lo xamne sax dañ la koy wax waye bo demul ba gis manam dëkk bi ni mu mel fofu waxuma la nit rabu allah sax buñ ko fa yóbbu woon jafe-jafe waaye loolu dañ teewul neena na lu mu fa mën daj rek neena ansaniya ansaniya imtidaaxu rabbil xatadi jumlatan maa laa xatadi laa xawmatadi nee na tagg ma doon tagg Seydina Muhammad tax na lu ma fa lu ma fa mën a def lu metti metti metti ndax tagg bi ñu tagg Seydina Muhammad tabarakallah rek laa jërë jërë jërëjëf day firndeel rek la mu wax ne xadimu zil madina wallaay dëgg la te yow xam nga ne xadim fail la wallaay dëgg la tabarakallahu siixatul mubaalaxa la sa bu ne xaadim sax mooy kuy def tey bu subaa nga bañ a def mais xadim moom day day day sax ba faw moo tax xadiimu zil madina kooku du dañ tabaar kooku cër la bu ko yàlla defal ah bu sa nga baal nu waxtaan bi rek tabaarakallaahu moo tax waaye xam nga kitaabun karimum min karimin mukarramin bihi kufitu aada wa zanba wa shirka xam nga boo seetee màggal gi du dara lu dul cant cant nag ci ñaar rek la ko Sëriñ Tuuba andi mooy ci bernde bernde it ci ñaar rek lay tënku mm-hmm. mooy bernde ci wàllu teraanga ci diggante gëléem ba ginaar mm-hmm. koo xam ne sama mbég sa mbegte la mm-hmm. loo ci mën rek def ko moo tax tabaarakallaahu da ngay gis kuy liggéeyal année bi yëpp ngir màggal dépensé ko ci bés bi waaye balaa semaine bi nga am lu ëpp la nga ca def xam nga gëm la تبارك الله طوبى لعبد مريد صادق لهم بخدمة aw bi xobbin aw hadiyaat c'est que loolu moo ko maye waaye tamit bernde bi li yaram bi di am solo am na beneen bu nu soxla mooy bu ruux bi c'est que booy bernde yaram tamit bul fàtte ruux waaw kitaabun karimun kooku ruux la de min karimin mukaramin bihi ku fiitu aada wa zanba wa shirka defe naa sëriñ bi busa Euh, safar bi bu dëgmalee rek bernde ruux yi tamit ci la bokk defe naa ne loolu am na li ngeen ci dëgmal loolu lan lay jox euh, nga waxaale tamit tabaarakallah comme ci barab ba nga jóge it tabaarakallahu ah yow la ñuy déglu loolu kenn du la tënk nag ci dara ah, waaw am na sang boo xam ne kenn du ko tënk da koy bàyyi rek mu indi tabaarakallahu li nekk ci xolam kon bu sa tafadal mashkura santaat nañ bu baax. Mm. ñaari sang yi li ñu fi wax daanaka mën naa ko euh, xaw a résumé rek ci sëñ bi dogg goo xam ne amoon na ko ak ak fit xëy na boo xam ne am na ko ngir liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi ak bëgg gum ko bëgg bu dee ngeen doon waxit ku ne xam na ne laataa muy dem ca géej ga démb ga xasiid ak xasbunallah wa nihmal wakilu muy amitu man yaasimuni min addarar min kulli cheytanin wa jinnin wa bachar boo demee ca tarjumaan ja mi ngi naan taxassantu asiyata yowma aljumaati xiina azamtu ala almasiri wa adina lii fi lmasiri rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maanaam bi mu dogee ba pare pour dem da doon xaar ndigalal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi moo ko digal mu dem mu ne ko imshi laa taxsha darar kon day mel ne cause interne yi externe yi sëñ bi doon junj sànq loolu feeñ na foofu muy sababu zahir bi ak sabab al batini bi nga xam ne ba ay waral ay al ghayba al bahriya bu dee sababu al zahir si ku ne xam na ne sëñ bi li mu fi fekkoon ci ay ni ko sëñ Musaa Ka waxee maanaam kaa ki di def lu leen neex mu fexe ba indi leneen loo xam ngir tajjit sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la neexutoon nit ñëpp tubaab bi moom doon di indi leneen pour coloniser Afrique rawatina réew mi moom it neexu ba la ñu daar koy rambaaje ak sëriñ bi daal ne moom kat jihaad la bëgg loolu moom mooy sababu zahir bi waaye sababu baatin bi nag comme ni mu ko sëñ bi junjee sànq sëñ bi waxal na ko boppam sababu xaybati albahida an allah tabaraka wa taala araada ba ca mujj ga wax de lam wax mooy ne euh, bu ma demutoon dëkk bi ma dëkk danañ nekk ay yéefar te buñ ko nekkee ñëpp danañ dugg sawara wala yaasu billah kon loolu mooy daa dem ngir rammuñu kon ñoo ñaar ñaari ñoom ñaari ñooy ñaari sabab yooyu ngeen doon wax دكو بغ بنم بن محن محبتي المختار سيدنا حب المغاني والاهلين والولدا دكو ني خمنا نيونتي صلى الله عليه وسلم بغ كو مو ورا مو ورا نديك بغ كو لوم من دون داخ تي حديث يونس صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى حتى يكون الله احب منه ومالده ولده والناس اجمعين كين دو بغ كين دو گم گمم گو مات لورو ني دا بغ يالا اك يونتيم بي لوكو گنال مو بغ صاح اي نيتام تا لول لا سنج بي ديف كون لوليت دين لا جو خامني دا نيو ريك pour sóobu ci loolu bu dee ci euh, xidma ji nga xam ne mbokk mi doon na ko junj tamit man dama naan foofu sëñ bi euh, daa fekk mbooleem nit yàlla yi ku ne jéem a cëstisi bu baax ci li ci pexe ba yonente bi reconnaître li ngay def mhm. ñu bàyyi bunt boo xam ne mooy alxidma mhm. xidma ku ne xam na ne yonente bi waxoon na ne mhm. euh, xayrun naasi xaadimuhum mhm. mooy ki gën ci nit ñi mooy ki leen di liggéeyal mhm. waaye nag man dama naan ki gën ci nit ñi tamit mooy ki nga xam ne mooy liggéeyal ki gënal yàlla ci nit ñi foofu la bi nekk mhm. moo tax ca 1893 jàpp 94 avant géej gi waxoon na ci xasiida ne ubaayixul yowma rasulal mustafa bi xidmatin wa asalullahul wafa muy loolu bu dee ci taggeeg julli gi salaatu sitta bi mati sitta taatihi batta maati saa yi ñëpp xam nañ ko mhm. kon loolu moom moo tax nag mhm. muy liggéey boobu yi ak pastif bi ak dog ji moo ko may lii mu am mhm. loolu nag moo ko yóbbu ci tukkeem ba ci 1895 ba 1902 ci tooñ boo demee ci archive tubaab bi ñu ngi naan lañ def ci conseil privé bu Saint-Louis bi danañ ko yóbbu ba nga xam ne assisment yi muy def waa di dañ muy yëngu-yëngu yi am Mhm. fek dañu du ñëw waaye na mhm. naa lañ waxon mhm. amut ndax yëngu gi tey lay gën am te ñepp ko xam te tay rek la bis tay rek la premier safar ah, ni ki non tam natt yi nga xam ne ah, daj nako fa lepp señ bi juñu nako sank sànq ma ci dik waye lool nak mom mo dem nak ba bimu mu ku ne xam ñane ne foofa te réew mañ ko yobbu kuñ fa masaan yobbu pour faaga gal kuñ naan leew mba bañ ko fa yobbo dafa faatu Mhm. am na ñeneen su mel ne sa Mourou Touré ñoom ñëpp mhm. la tax ñu faatu dem nga la mhm. te sax lii wëral na dañ koo bëggoon a faat mooy li muy wax naan euh, wahabani lwahaabu fi thulatha maa yuxju maa yuxjul al ashrata wa thalatha yàlla may na ma moom mi nga xam ne mooy mayaakoon ba loo xam ne dana gàccaal fukki officier ak ñett yi ndax tiim nañ ko bis war koo war koo war koo faagaagal koy bal yàlla dogal la muy dogal ak fit ba mu am lépp taxul mu yëngu ak mu ak mu def dara mm-hmm. yàlla dogal indi xéewalam ya ñoom ñëpp ñu yaa faatu moo tax muy wax loolu kon mm-hmm. natt yi moom fu ñu ko takk weesu na ko mm-hmm. bu dee nag ci ñëw nag loolu dama doon laytaay rek pour commentaire ci sang si nga xam ne def nañ ko ndax daa am solo lool dee bis bi ñuy jublu si nag muy màggal Tuuba ku xam na ne histoire bi euh, sëñ bi moom moo ko defal boppam nuñ koy màggale xëy na laaj nga ma ko loolu damay ñëw rek ci texte yi nga xam ne Cheikh Modou Fadel def na ko ci xutbab màggal 1962 mhm. foofu moom ku ko xam rek da nga xam bu màggal gi ak naka la ñuy màggale mhm. waaye ci historique bu màggal gi rek ci boori 1920 am ñu ne 1918 mhm. tolloog 1340 boobu ku ne xam na ne sëñ Moulay Bousso di doomi sëñ Mbàkke Bousso lam ca wax loolu firndeel na ne sëñ bi kat màggal gi ba mu koy def ak ba mu koy digle ngir sant de ko yàllam ci xéewal yi nga xam ne moom la ci am la mm-hmm. te foofu dama fiy leeral mooy euh, particularité bi nga xam ne màggal Touba am na ko mm-hmm. ñu bàyyi ci xel muy ku ne xam ne ne àdduna bi bari na bis yu ñuy màggal mm-hmm. waaye màggal yu bari bis ba la koy waral nit ñi dañ cee amoon am mbégte di ko ko di ko màggal lu mel ne ay anniversaire bi si judd la ay ay mbégte waaye sëñ bi bis bi nga xam ne moom la nattu yi tàmbali moom lay màggal mhm. loolu lu mat a bàyyi xel la mhm. muy mënoon naa fexe ba def ne bu doon kuy voté violence la mhm. bis biñ ma yóbboo tooñ ma boobu bu ñëwatee ku niroog ñooña ma tooñoon fu ma ko fekk dinaa ko duma wala danaa ko rey waaye xoola mbokk yi fépp foo xam ne xonq nopp yooyu ña ngi fa ña ngi fay màggal tey waaye non seulement loolu dañ ni invité ñu ñëw ñu teral leen ñëpp bokk ci bis bi muy ak sant yàlla goo xam ne moom moo am ci bis boobu te loolu muy lu wuuteeg ñeneen ñi li ñuy màggal ndax dañ koo tooñ mënoon waye mu ne kat sëñ Moulay neena na sëñ maam sëñ Modou Bousso moom sëñ Mbacké Bousso di wayjur sëñ Mamoun Bousso imam mm-hmm. moko yoni won ci sëñ bi addiya jox ko ab bëy ne ko demal nga joxal mako ko mm-hmm. bam deme neena demee na bi ne ko wetchel mako ab khaf mm-hmm. na ko wetchem khaf mu ne ko teyel mako nga samal mako bam ko samme neena ba bisu maggal gi jot sëñ bi ne ko euh, defaral ma gatte bi ci sa loxo nga wutuma ma ci sëñ Moulay nee na ba ko defee ba wuutu ba mu ko indee mu ne ko joxal benn bi sa bàjjen Aminata Buso mhm. yaa mooy waajur Sëriñ Abdul Xaadir mhm. benn bi soxna sa bàjjen soxna xanta soxna xannata Buso mhm. bu ko defee ñaar koy defar ni mu war a rafete dar koy séddale waa kër gi ak mboolem waa dëkkandoo yi daal ne bis bii kat bu ñëwatee nañ ma ci santale yàlla ndax mboolem ni nga xam ne am naa ko ci xéewal ci bis bii laa ko amee kon loolu mooy cant gi nga xam ne moom la sëñ bi woote ci màggal gi xëy na wax sëñ Balla Faali Jeng mu yëgal ko taalibe yi ngir ñu di ko tàmbali di màggal mm. kon bi moom moo ko tàmbalil boppam mm-hmm. digale ñu koy màggal ba daa ci def ay xéewal yu bari màggal na ko lu ëpp juróomi at te ñu jaareem ngir sant yàlla uh, mm-hmm. ngeen di waajal mm-hmm. uh, léegi bu ko defee nag kon màggal gaa ngi noonu muy cant yàlla googu nga xam ne moom la sëñ bi digle ci weeru safar léegi nag ginnaaw 18 ji moom mom lañu diggal waye ñun murit xër nañ xër go xamne xam nañ ne wéru safar wépp ñu wara sant yalla wara sant yalla lolu ba taxna bu safar sé rek ñu tambalé amal ndax le señ mohammedul Fadil waxon ne tant gi kat nañ koy def ci lo xamne neex na yalla muy jang khasida ak alxuraan njëkk ak def ci lu baax muy berndel ruuy mhm. ak def ci ay ñam berndel ruu gogu nak moo ba eh, ñi nga xamne ñoo di ab kuréel boo xam ne ay taalibe sëriñ bi lañ ay sëti sëriñ bi lañ mhm. tuddi kuréelu liggéeyal ku tedd gi mhm. nga xam ne ku ne xam ne ne baatub liggéey muy ma moom la sëñ bi amee lépp ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mhm. ñu nit ñu barkeelu ca baat boobu ndax sëñ bi ñaan na ko bu baax waxit xëy na ñu ci ñëwee ci njariñul ko koy liggéeyal ñu gis na kat ñun waa kuréel gi ñu nit am na lu ñu war a liggéeyal Seexul Xaddim kuréel bi ko ne ca bopp ba muy Cheikh Abdoul Ahad Mbacke moom suñu xalil moom suñu Modou Fadel ak coordinateur bis bi nga xam ne jublu nañ si xëy na ci événement bi danaa ci ñëw muy Cheikh Fadilou Mbacke moom Serigne Tahir ak waa lañ culturel bi nga xam ne Serigne Fallou Mbacke moom suñu yëddaali moom suñu Fallou moo ko jiite ak mboolem ñi nga xam ne ñoo composé bis bi muy ñu ne kat war nañoo liggéeyal sëriñ bi ci yaatal njàngalem mi ndax liñ koy liggéeyal moom nam daan liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy di ko taalifal ay téere di ko tagg ngir nit ñi xam ko waaye di yaatal alxuraan di ngir nit ñi xam ko mhm. ñu ñu ne kon ginnaaw sëñ bi waxoon na ne dinaa leen bindal bàyyi fi ndax mbind mi yéen a ngi koy dund sànq mhm. ñu ne ñun nag war nañoo bay suñu euh, laaj ca loola mhm. ñu ne kon nañ taxawal kuréel gi ngir dimbale ci taalibe yi nga xam ne xëy na ñenn ñi weesu nañ am njàng jàng sax du wees waaye toog di jàng ñu ne kon nañ ubbi loo xam ne kat ginnaaw yàlla moom yonent bi waxoon na ne foo xam ne lu baax moo fa nekk ab jullit moo ko moom mhm. ñu ne kon tubaab bi créé ne li ñu naan ay réseaux social lu mel ne ay Facebook ak WhatsApp mhm. ñu ne kon ci kuréelu WhatsApp googu nañ ci def kuréel goo xam ne waxtaane ku tedd ki lay tudd mhm. ñu defa dajale ay jullit yi rawatina murit di leen jàngal alxuraan siira ak xam-xam ak yu ni mel lañ ko tàmbalee woon ñu dem ba ci yàgg nag ñu ne kat léegi kat am na ñoo xam ne xëy na amuñ ci réseaux sociaux yi benn muy WhatsApp nañ jëmmal kuréel gi taxawal ko ci noonu nag la kuréel gu juddoo tudd kuréel liggéeyal ku tedd liggéeyal ku tedd ñu am ay activités yu bare bare bare yo xam ne danañ ko def waaye lu mel ne dimbale ñi nga xam ne ay néew ju dool lañ rawatina dimbale ay daara ndax sëñ bi alxuraan rek mom moo ko activité bi kañ la la carte bu ko defee loolu mooy ma bëgg def ñaari par muy ñaari par. waaw euh, jëmmi kuréel gi ak jëmmi événement bu mag bi nga xam mom moom lay wajal muy la carte ngir berneel la ko ruuy événement bi nag la carte safar lay doon incha allah muy alarba di ginnaaw di ginnaaw suba ji le vingt cinq octobre mhm. fële ca Touba ca mbaarum Daaru Xudóos mhm. muy fi ñu naan waa ul xamdi mhm. mbooleem la fay am nag muy bu ñu xëyee danañ wàcc alxuraanul karim ndax sëñ bi moom rek la bëgg euh, jàng fa ay xasaayit bu trois heures jotee nag ci dañu woo mbooloo mi nag ngir ñu ñëw ñu daal di dérouler suñuy activité na muy demee mooy danañ ko ubbee ak musaabaxa bu mag muy jongante ci wàllum alxuraan xëy xam-xam ci wàllum alxuraan dajale ay xale yoo xam ne mokkal nañ alxuraan ci mokkal bu rafet ñu dajale leen mm. laaj ba ca ka raw ñu jox ko am neexal bu dun boo xam ne neexal booba sëriñ daam abdourahman looy mi nga xam ne mm. ah, moo daan liggéeyal sëñ bi ci alxuraan moom lañ jagleel prix boobee mm. buñ ci loolu nag ñu yaari def musaabaxa boo xam ne ah, alxadimi la tudd maanaam ah, loo xam ne ay concours la yoo xam ne ci murit gi lay aju Mhm. muy sëñ bi ñu xam histoire am comme li ñuy waxtaane mhm. ak ñi nga xam ne ñoo nekkoon ak moom te def lu baree bari loo xam ne ay référence lañ mhm. ñu war koo xam le ñu ne léegi kat am na xayma xam boo xam ne danañ ko jagleel loo xam ne laaj yi ci murit gi rek lay aju moom ñu dajale ci ay ñoo xam ne dañuy yëngu ci wàllum xam-xam daal leen di laaj ci sëñ bi laaj leen ci àndoon ak sëñ bi ay question yoo xam ne ñu yu histoire la yoo xam ne luñ war a xam la ñu jagleel ko ñooñu nga xam ne dañu sëñ bi demoon gànnaar mi ngoog comme lu mel ne ñu ne mi ngoog mi ngoog ñu ne xale bi masalan ñu ne ko sëñ bi ban année la moom feeñ jamono mhm. sëñ bi ban année la dem ci géej gi mhm. sëñ bi wane waaye juru sëñ sëñ diw kan mooy kan loolu daal nga xam ne day dimbale war gone yi nga xam ne mhm. dañoo toll ci am xam-xam ñaari xam sëñ bi ak murid gi ndax moom la ñu war a njëkk xam ñi nga xam nañ nanga fa tam danañ ko xam prix boobu ñu ngi ko tuddee sëñ Mouhamadou Lamine Diop ak dagan yi mi nga xam ne moo bind irwaawul na ana boo xam ne tam al musaajara lañ koy tudde muy jongante boo xam ne dañuy fit xale yi wala ñu ñëw di tari ci xasida kii day wax ab xasida baat ba mu le keneen ka daal di jële foofu nga xam ne loolu day laaj moom ma ñëw bu so xam naa dinaa ci dinaa ci ñëwaat tabaarakallaahu <laughs> euh, ndax programme bu am solo la boo xam ne euh, ñu ngi leen koy fàttali euh, ñeenti fan ci safar la mhm. kon nan ko bàyyi xel bu baax xam naa ne programme bi tabaarakallaahu gudd na te am na njëriñ waaye nag dañ koy alterner rek dinañ ci ñëwaat bu baax tabaarakallaahu mm-hmm. sëñ xaadim euh, looy looy looy looy indi ci euh, xam naa fi ma mm-hmm. bëgg a euh, dikk tuuti rek mooy mm-hmm. muy bernde ruu nga xamante ni sedd gi nga xamante ni sunu borom sedd na ko sëñ Touba alxuraanul karim ba léegi day dox ci biir njabootu Serigne Touba Cheikh Sidil Muxtaar Mbacke yàlla na ko fi yàlla yàggal yaakaar naa wàllu alxuraan yi kenn ku ne xam na ni mu ko séddalee biir Touba ci loxol Serigne Ahmadou Badewi mom seigne fallu ak ñam ko andal tay ji bo démé ci jumaa ja danoo yendo jang alcorane karim ak qasaid ku ko mënul def salatu ala nabi di sikar yaakaar naa guddi ñu ko cërale sëriñ Amsatu Mbàkke moom sëriñ Sohaybu nga xamante falay fanan ba wu set wetch di jang alcorane karim yaakaar naa euh, bodon doon nat sax daw lañu amoon ci ay kamil alcorane ay millions ngay wax yoo xamante ni jàng nañ ko ci alquranul karim noonu la ni fanaawoo mm-hmm. moom la ni fanaane ak jàng xasaayit waaye loolu DTV daf ci am rôle bu am solo ndax mm-hmm. yaakaar naa ñoom ñu ngi ma ko doon yëgal ma ni leen xëy na tey dafa tombe ak plateau spécial bi nga xam ne moom la ñu ubbee màggalu Touba mm-hmm. waaye kon DTV day ñëw jël ko ndax lépp luy reportage boo xamante ni dafa soxal màggalu Touba yaakaar naa kilifa yi ñu ngi ciy waxtaan ak man ngir ma koy jëli rawatina njabootu sëñ Tuubaa gi ak taalibe yi ak fun mën di nekk DTV bi dafa bëgg a dem foofa di xam ñoom lan lan fay jànkonteel màggal gi nan lan koy dunde ñoom lan lan ciy yëg lan lan fas yéene defal sëñ Tuubaa ci bisam bu tedd bi te it loolu mu doon lu am solo loo xamante ni yaakaar naa taalibe yi dañ koy bëggee ba pare bëgg ko DTV nag ni leen bu ko kenn jënd bu ko kenn uteeti uh-huh. mu ngi nii ci seen loxo fu ngeen ko soxlaa yéena ko moom tabarakallah ba lu mel noonu uh-huh. yaakaar naa mbooleem communicateur traditionnel yi uh-huh. oustaz xam naa loolu euh, ñoom it ñu ngi ci def lu am solo maa ngi bokk seen biir ci njiital sañ sëñ Modou Mbaye Ndiaye euh, ut nan loo xam ne ci sunu poos bopp lañ ko jëlee war koo yët sancaan yi loolu bi ko yëgli biir Touba ba dem ci maire ak ñi nga xam ne ñooy chef du village ak Serigne Cheikh Bassoum Serigne Abdou Khadir mhm. yëgal ko ki nga xam ne mooy maire Touba di Abdou Lahad Ka ci mhm. ceeb bi nu waroon a séddale dafa jël deux tonnes joxuñu ko ngir ñu war koo yët sancaane jëfle jox joxe leen ko addiy mhm. Serigne Touba ak ñun lan cay dolli yaakaar naa loolu nag ñu ngi ciy tàllal ki nga xam ne moo njiitu réew mi loxo moom it ngir moom mën cee dugal participation danañ ci ñëwaat Serigne Khadim la tabaarakallaahu dafa mel ni kon màggal gi neex na ba pare waaye nag da ngeen wax wax bu am solo boo xam ne day point boo xam ne suma sañoon ñu jàngat ko ndax sëñ bi bu sa dafa signalé lu am solo ndax sëriñ Touba su ko neexoon ci nattu yi fi mu ko amee du ci sant boroomam parce que ki liggéey ba ñëw ba am li nga war a am yaa war a sant mais ki nga xam ni mettit yi nga xam ne teg nan la ko yow départ ba yow ngay santee sa borom kooku war na am luñ ci jàngee xam nga jamono bi mu ñëwee Dakaaru di dugg ci néegam néeg boobu ñu ko dugal ngeen may nu rek ndax teggi na tax mu tàng lool mu jël tànkam dugal ko pont jam ko mu sar deret di tabaarakallaahu yool mu ne isa zakartu zalika al mabita wa zalika amiri wa shubuta taarat ilal jihaadi bi armaahi xam nga loolu bu jugoon rek problème am waaye walakin zabba annil maaxi mais mais mais ah wa wa amoon na doole ji walakin zabba annil maax yi mais foofu foofu lan dama bëgg loolu yéen ñëpp ngeen ngeen indi ci seen parce que loolu parce que loolu jàmm rek lay indi dala wan na sëñ Tuubaa léppam jàmm la waaw foofu lan nga fay indi xam nga xam nga xam nga li doy waar mooy loolu lépp fii bi mu koy def ñu jël leen ndar indi leen Ndakaaru nga ñëw te bu muy ñëw dafa woor wala xaraat ne fu mu war a mën a daga kooram la ñu dugal ko foofu waaye xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam Sëriñ Tuubaa jaxasoo la ak moom jaxasoo goo xam ne sifaau qalbi wa sifaau jismi muhammadun salla alayhi rabbi su ma feebaree bu sama xol feebaree wala bu sama yaram feebaree tuddal ma yonent bi rek kon sori na ci moom mm-hmm. moo taxoon mu waxoon ko ne ci jaayante ba ne ko li ma lay bëgg-bëgg du ma la ci dimbali waaye bu natt bëggee ñëw danaa taxaw si boo ma séenee xamal ne natt bi ngi ñëw mm-hmm. waaye moom itam saa bu gisee yonent bi sallallahu alayhi wa natt yi tey bu doon fukk la mm-hmm. daanaka mën nga ne benn ba lay yëg wala du ko yëg ndax bëgg gi mu bëgg Seydina Muhammad moo tax bi ñu ko dugalee foofu بما يؤخذ اذا سكر سالك ما بيت وذلك الامير وصبور تار الى الجهاد بالارباح نفسه ولكن صب عن الماء مي دم دم بغ فيريكو باسكو نيت ني غن كو خام تار الى الجهاد بارماح نير سفاتلكو نيك بوبو اك يفا خيو ييب نانا داي بغ جهاد نانا واي سا بو خلم دمي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رك رك مو باي كون نيت ني وارنان ام اسبري دو غراندور بي سيرن توبا ام Mm-hmm. parce que war nañ ko ci jàngee ah, parce que nee saa bu xelam demee ci Seydina Muhammad sallallahu mu bàyyi mm-hmm. parce que waaye teewul tam moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekk na ko fa soxna mm-hmm. jaariyatullahi fekk na fa nan tëj nañ ko ñaari guddi lekkul naanul lu ci leeru yàlla billaahi kooku neenul yaa ngi dégg nee na nee na gis na fa rasulillahi gis na fa sunu maam soxna jaara mu di ko ñaax te di ko dolli daara bi sallallahu alayhi wasallam fa soxna jaaritullahi fekk na ko fa xam nga sëñ bi sëñ tubaa lim daj nabbaxtukum ma ala kaddin bada lii qablu an araridan mu abida yee naa leen ci yéen ñëpp ne man sëñ tubaa daj naa coono yi méttee métti métti méttee métti la wax laataa may am ngërëm bu sax lii gis nga li nga wax léegi li sëñ bu sa wax sëñ oustaz da nga wax ne nit kuy màggal ak nattoom xam nga sëñ bi natt ñi nga fi gis ñëpp ñuy màggal seen bisu fête bisu mbégte ak ay miladiers yi bisu yi xam ci doon juddu mom lañu magal bi ba muy bind rumna xam nga ay rabbi awzi'ni an ashkura ni'matak ni'matak allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin salihin wallahi yonent yàlla Suleyman Suleyman nguur gi ko yàlla joxoon habli habli mulkan laa yanbaghi li ba'd li ahadin min ba'diya may ma nguur goo xamante ne keneen dootu ko am sama ginnaaw moo tax mu doon sant yàlla ci aaya yooyu ياغي دغ بو باخ القران اك فيم كون سانتي وعلمنا سليمان منطقه تير يالا لي سليمان ما خاول كو بيتي بون سابيس خمو خم لي واخ وسخرنا سليمان سليمان الرياح ما تاغاتال كو غيلولي لب رك ومو دم با يجيك ليكو يالا دافال خورنا مي صاح بون وقتاني مودو كو ديغ ديري تي لي سانتي يالا نك يالا باي ما كون ما سانت لا خيول كيغا خامني بيمو خيولي nga boole ci samay wajar waju nangam nangam legi bi mu nekkee ci nattu yi xam nga sëñ Tuubaa wax rum naa shukuura lazi bil kaay fi woon noonu sànni naa sama cant ci kan bil kaay fi woon noonu borom kun feekun mhm. ki nga xam ni macha a yafaalu ki nga xam ne lu ko soob mu def mhm. min baadin ci dëkkuwaay ba ci àll ba ba makka dul ak ci dëkkuwaay kon xam nga kon xoola bayit bi waaw gis nga magie la télé waaw rum naa shukur bayit bi ngay wax ak noonu waaw parce que moom moo nekkoon ci ba mhm. gis xoolal sant ma ngoog bi mhm. kaafi wa nuuni macha ayafalu min baadin wa maknuuni min baadin wa maknuuni sànni naa sama ngërëm mhm. ko ki nga xam ne mooy borom kun fayakun moom mi nga xam mu def ci àll ba lu ko neex mu def ci dëkkuwaay ba yaa ngi dégg Suleymaan moo nekkoon ci dëkkuwaay ba di sant xewle mu ne moom man maa ngi ci àll bi waaye maa ngi sant xewle yi mu defal dem ba ci biir muy wax naan lillahi jalla yadi wal qalbu ma abadani wa saaqali fawqa ma inda sulaytin sama xol bi yàlla laa ko jox moom laa jox sama jëmm ji mu jox ma nag lu kawe lii buuri tey di bëgg boo gisee tey siin bii ak yu mel ni yoo xam naan rabbun yajuri bi tayin xat yaxu kalafan kaamay najji bi lay sami wa tax siin bi mu wax naan ah, bi lay ijaarati li jihaati saam wa siin nga xam ne yàlla dina ma jox mboolum xéewal lu ma bëgg te du ma gàdday dem saam du ma gàdday dem siin làmmiñam woowee ak làmmiñ naa Mohamed ba mu waxoon siin moo tax tey jii ku jóg balaa ngaa am li la gënal faa nga dem siin mu dem ba ci biir muy wax naan eh, lii kun bi kun sarmadan وجعل مسيري يا زاي جوف الفراغ لبرا مثل المحاريني نغما نكال تكون بفاو واي نغما دفال نك تاي جوف الفراغ واخنا ني نينكو مونا مثال موي راب وخامي تاي بو فيكون تاني تاي دركو جيرون تاي تركو في واخ ني داكارو واخونو بارني واخونو فين مانام ادونا سيب من نانتي اج من نانتي رير من نانتي دار تي توكيم بوبو كون استاذ يو داي نيغي نيت كو ام parce que xam-xam da ko ñor tey li ngay wax da koy dégg te da koy bàyyi xel moo tax lii sëñ bi wax foofu ñu duggee tam maanaam loolu moo tax ñu duggee foofu biir jàngat bi mm-hmm. Mm-hmm. mu taxaw ci biir néeg bi mm-hmm. boo dee jàngat sëñ Tuubaa rek xam ni diggante ngor ak jom aku fit kenn fekk ko ci kenn ku ko ci fekk ci àdduna amu ci ndax néeg bi li tax ñu tëj ko fii lépp lépp lépp lépp bu soo ko dee xool mm-hmm. yàlla yi kese kese kese la du jë bu doon jëmmam képp mm-hmm. laata moo génn daaru xuddoos mm-hmm. ca jàkkaam ja la mu doon ut ci cëru suñu borom lépp am na ko kon ku taxoon muy def ñun ñii ndeysaan tabaarakallaa sëñ Xaadim daanu na last axaafu dora xalqin baadama fawattu amri moom léppam léppam Serigne Touba la wallaahi wallaahi léppam léppam léppam sa foofu point bu am solo la de wallaahi wallaahi point boobu wallaahi su ma sañoon kenn ku ne uh-huh. dang nga joxe sa xalaat dëgg la wallaahi dëgg la ndax point la bu mën a indi stabilité wax ma la ci réew mi de ci adduna mm-hmm, mm-hmm. ce que mën a fayu mm-hmm. yor moyen yoo fayoo te mën ko ba pare jéggale kooku dama ne président sax ci war a njëkk a jàng nga taxaw ne ministre yi ahda i turan jégal naa noonu ñëpp toppoo kenn dara waaye nag bu leen noonu sax koo leen gis laaminam di génn salimtu min al ahda laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah salimtu min al ahda i turan ma jégal moo tax ma jégal ñëpp loolu loolu yëbi na de ah? salim bi minal ahdaay turan mu ngo naa ci loolu yëpp mu ngo moo tax afawtu anil turan turan mm-hmm. waaye bi ma xamee ni yàlla moomay fayul mm-hmm. alimtu yaqinan anna mawlaaya kaana lii mm-hmm. wa anna al muqafa man qalaani yardu am naa yaqin ci wér ne yàlla mi ngi ànd ak man yonent bi salaa salaam nag képp ku ma noonu yonent bi salaa salaam moo lay fàdd kenn laa mos a gis moom sëñ Tuubaa mu wax ne déclaré naa ko guerre daa bëgg Seydina Muhammad bëgg goo xam ne ku bëgg yonent bi من النبي المصطفى خير الورى غردي في كل شيء وما يابه اباه اقسمت بالله اني للنبي ابدا خل وحب ما اباه يابه جناتي يالا ما يونت بفا دون تخلكو مك خردم لا صبم لا لوكو نيه نيه نما واي لوما نقر رك نقر نكو موتاخ مسيل ما تركا زاب ميغا خامني دا فا صلى الله عليه وسلم صابو يونت صلى الله عليه وسلم واخين يالا ما يوندي اندي ايه القران مو اندي لالين ban bu ñu dakanté ko kazaab ki nga xamné du wax ko tu deug bu gisé lan sax bu ne nangam yàlla soppi ndax yàlla namatul mu wax dëgg moom laa mos a gis sëñ Tuubaa ne comme déclarer na guerre xam nga ko ne baal naa noonu te nim dajanté nim metté mu méttee afot anil adaayi baal naa noonu yëpp waaye kee rek la gis mu wax ne alam tara anna allah aghza bi zikrihi musaylamatul kazzab izja wa sabbaha sayatrutuhu abdul ilahi wa jarihi xadimi rasulillahi tardan musaffaha wallahi ngir ngir cofeelu yonent ngir cofeelu yonent bi rek mu ne dekk naa ne maa ko ger bu yomal xiyaama dinaa lijjante moom dëgg la kooku moo bëgg rasulillahi dëgg la dëgg la lu am mais euh, hmm. looy indi foofu wallaahi xam nga sëñ bi dafa saa yi dafa mel ni pikiir na dafa wax lu am solo lu am solo xam nga sëriñ bi cofeel gi ci cofeel gi ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa hmm. jéggi dayoo mu ne su ko nat hmm. mu ne su ko nat li nga li mu wax ni ci ci Musaylima al-Kaddaab kenn ci mag ñi dafa bu ma juumut euh, sëñ euh, kii sëñ ma bàññi njaay naa bi mu yëree bayit yooyu daa wax sëñ man defoon naa sa xalima du yuud lii mu ne ko mu saylimatul kazzab mun ta xam sama teggini xalima mu saylimatul kazzab mun ta xam sama teggini xalima la ko wax ndax lan noonu gum yonoon yonent bi di woote ak yonent ngir faaga maanaam dindi lislaam ak yàq li liggéey bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax loolu la ko da ko wax zalla musaylimata xiina jaara man fil wara xatulaayu jaara

li ko yonent bi jaral. diggante gàmmu ak màggal rek xool ko. benn bis bu am solo ci réew mi amu fi. déedéet dugg ci diggante boobu. dara dara xaju fi mooy loolu. sun borom ci analyse bu gàtt rek. diggante ak rasulullah. lu am solo nga wax. waaw ah. sun sun borom moom. dafa yéeme ki ko liggéeyal te te te ceexaanu. dañuy tudd sërëm di ci teg rasul. waaw xaadimu rasul ngay dégg. moo moo tax bis bu safar jàllee rek rabiul awwal la di. wallaahi. dara doxu fi mooy mooy mooy ni ko waxee rek mooy diggante loolu li muy tekki ne suñu borom mooy wan waa jamono ci ne diggante kii ak yonent bi dara doxu fi loolu rek lay tekki loolu wér na loolu rek lay tekki dalla ni allahu ala muhammadi wa xaarini muhammadun li samadi dalla ni allahu ala xayril wara wa xaarini xayril wara li suwara dem ba maanaam li li nga xam ne li gën ci li ñëw ci adduna muy waxe suñu borom te mooy te mooy alxuraan suñu borom wàcce ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom dem ba moomale ko ko moomale ko yi firi alif lam mim nga xam ne sëñ bi ku doy waral ni mi tafsir alxuraan alif lam mim boo demee ci mboolem tafasir yi mag yëpp wallahu a'lam bi muradihi lañ lay wax yàllaa xam lam ci nam alif lam mim yàllaa xam lam ci nam moom bi mu ñëwee ne suñ borom moo ko firil alif mooy aw aw aw awrastukal kitaaba doon na la doon na la naa la téere bi laqantukal kitaaba sanaa la téere bi ndax nga man suñu tubaab ni mu dégg alxuraan amul ku ko dégg ne dëgg la dëgg la malak tukkal xuraana war na ko moom loo naa la ko gis nga ñett yooyu ni mu tegaloo da ko doon leer ba noppi sàkk ko mu door koo moom afaliya sirral masunallahu xubban wala ilaha illa allah ustaas li ci gën a yéeme mooy waaye xam nga kii li mu wax nii xam nga sax li gën a yéeme dane alquran nu nuy moomee dara nu ne yàlla may na ma ko yàlla jaay na ma ko yàlla sarax na ma ko yàlla jox na ma ko addiya mm-hmm. ñu ne ko bindal mu ne mulliktuhu mm-hmm. hadiyatan wa sadaqa mm-hmm. wa samanan wa lii yudiimu nafaqa wallaahi <laughs> yàlla jox na ma ko addiya sarax na ma ko jaay na ma ko waaye nag li gën a yéene bi tegtee moom alxuraanam rek balaa mooy ñëw ci affaire islam affaire nitug jàmm gi mooy mën naa ne moom rek moom moo am euh, ay nit bindal ko kaamil ci fan ci benn bis ci benn bis te daaw jéeg rek waxuma la ba ma ko njëkkee def waaye am na ay tu tànk yoo xam ne mën nañ téeméer ak ñaar fukk amuñ fukki at ak ñaar te bind nañu kaamil ci fan ci màggalu Touba ci màggalu loolu day wane ne kon moo alxuraan tey jii li nga doon li nga sànq berdeer roogi ay daanaka mën na millions millions yi kaamil loolu yombul ci dëkk ah tabaarakallaahu kon kon euh, ñu ngi leen di ñu ngi leen di fàttali rek ne ku bëgg a participer defe naa ne tabaarakallaahu murid yi fi mu ne pikiir nga leen mhm, mhm. te kenn ku ci ne it boo bëggee participer numéro baa ngi noonu affiché 88 628 11 11 22. tabaarakallaahu 88 628 11 22. tabaarakallaahu ku bëgg a wootee numéro yaa ngi noonu kon mën nga mottali waaw. waaye sëñ bisu bi dafa wax lu am solo ci ci eh, loolu yi nga xam ne daaw jéeg rek na ci màggal gi. Mhm. ci bisu màggal gi lañ ko def jour màggal ak ni mu xate mhm. da gi ni mu xate mhm. ni jot ñàkke ci ci ñi dëkk Touba ñu dajale lu tolloon bindub kaamil ci bis boobu wattu ko ngir lan maanaam barkeeloo ko ci kaamil bi sëñ Touba bind loon xam nga sëñ Mouhamadou Diop dagal wala Iran Nadine dafa nettali ne dafa am bi sa maanaam ci ama bam sasin 1342 loolu du sori mille maanaam 1923 wala 22 du ko sori sëñ bi daa daa am mu woo mag ñi bañ ñëw ñi ko daan bindal mu yor sa xub këyit ci ñaari loxo yi nee ndax xam ngeen lu mu bëgg ci ci yéen ñu ne ko déedéet mbàkki mu leen këyit gii de damaa bëgg ngeen bindal ma ci kaamil fekk weer yi boobu mi ngi toll ci weeru koor la de ñaar fukki juróom benn juróom benn xanaa weer tey ñeenti fan moo ci des bu kaamilee bu kaamil lu fan a ci des mu leen di bëgguma ngeen ne ma weer waa nga ne te néew leen ma kaamil baa ngi nii jox leen kayit gi ñu la kayit gi biñ séddoo kayit gi mag ñi kenn xone dem sa kër di bind li ci gën a yéeme mooy mooy mooy fi nga tàmbalee face kayit gi nga yor hmm. boo tàmbalee bind ci ca bopp kayit yi euh, ba fi nga yem nga nga baal nu rek uh-huh. Moustapha Sey benn téléspectateur bu bëgg a dugg hmm. bismillah dafa dal mashkura Moustapha Sey salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah sëñ bi ñu ngi leen di jeex ñoo ngi nangu ziar bu baax tabaarakallaahu. na ngeen def ak coono yi. sant bu baax tabaarakallaahu. naka bokk taalibe yi. ñëpp a ngi ci jàmm tabaarakallah. dama soog léegi di teewlu waxtaan wi. dëgg la la sëy. waaye li ñu njëkk a sant rek mooy teggin mu làmbool. tabaarakallah jërëjëf sëy. ndax suñ ci moom. Mhm. kenn ku ne xam na ne nee na li mu fi indi. ku ci jëlee teggin bàyyi woo fi dara. ku ko fi bàyyi yóbbu woo dara. te Sëriñ Tuubaa li mu daj. Mhm. ba am li mu am suñ borom defal ko lu mu dul defal ci doomu aadama may ko lu mu dul maye ci doomu aadama mayam gi saa bu xëyee day gën di yokk di gën a sedd xolub képp ku baax di gën a suufeel xolub képp ku mun a xari waaye li am solo mooy di jëm mu jële di wax ci e, mooy dama xamutu tur bi loolu la xaw a li maa ngi jàkkaarloo li bi mm-hmm. e, wax ci Sëriñ Tuubaa di ko teg ci am bindam dafa am solo ndax kenn ku ne xam na ni sëriñ bi li mu daj li ak njabootam daj xam na ni jaamu yàlla ak liggéey la waxoon ni xew na te du xew te mi ngi ci tënku liggéey ak jaamu yàlla fi nga coow li bari na lool te fi nañu baree baree bari li fi Sëriñ Tuubaa indi niñ ko war a yaatale mu tegu ci xam-xam bu sell tegu ci liggéey gu ànd ak ragal yàlla mm-hmm. tegu ci ak jaamu yàlla mm-hmm. gu sell gu ànd ak ragal yàlla mm-hmm. ba nu xam ne Sëriñ Tuubaa jiitoom jii umpul ku yàlla bind képp ku bokk ci moom buñ la dee tudd di ko tudd war ngaa yor melo nga xamante nii képp koo xoloox la xam ni yow sa waay moom bu doon am rëbb sooyu dafa jot nit ñi xam Sëriñ Tuubaa za naf'in bila dararin njëriñ la gu àndul ci lor xoolal ngelaw li ñuy nooyi bu la ëppale bu ëppee rek ay lor dugg ñoom mi ñuy jëfandikoo bu ëppee ay lor dugg ndox mi ñuy jëfandikoo bu ëppee lor dugg te ñett yi doomu aadama bu ko ñàggee bàyyi ko bàyyi koo fi te Sëriñ Tuubaa moom loo koy gën a bëgg muy xuus géej gu nga xam loo koy gën a xuus di ko gën a bëgg Sëriñ Tuubaa mooy lu nga xam ne loo ko gën a xam njommite lu nga xam ne loo ko gën a xam rek di gën a jommi Sëriñ Tuubaa mooy njombitu lu amul fu mu yàlla dëgg la de dëgg la de te kenn ku ne xam na ni li ko yàlla defal defal ko ko ci dëkkam defal ko ko ci njabootam defal ko ko ci ay waayam waxuma la sëriñ bi sax sëriñ bi daa ëpp waaye taalibe bu nga xamante ni mel na nam mu war a mel rek gox bu mu bokk la gën a wóolu dëgg moom lañ koy dénk ndax yàlla ka lim mu gën a wóolu Sëriñ Tuubaa la ko dénk xoolal doomam bi ñuy wax Cheikh Mouhamadul Moustapha sama benn nijaay daf may Cheikh Moussa li limu tombel ci liguey Serigne Touba kenn ku mu doonoon yow kudul mom ci nim ko wajale di nga mujj pousse bi mu reex deug la de di nga mujj pousse bi mu reex ndax serigne Moussa bo xoolee ci ci ci ci jëmum rek limu mu daj ci ay damay wax ni jangale serigne Touba do rek nga xol kan moy serigne Moussa nga waxtane ko mm-hmm. di nga xamni serigne Touba mi amul morom mm-hmm manam Serigne Touba eh, ci damay bañu tey antenne bi lu bari nah. waye Serigne Touba li serigne Blaat jangale xetu lu bax lu ne baax na waaye li wir moy nañ moy Serigne Touba Serigne Touba nak bo ci ken waru la dak jaamu yàlla kenn warulaa gën a ragal yalla ken lo gën war gën gën wara wara nango liggey ken gënul la wara war ndax Serigne Touba ak jub ak ragal yalla la ya. bëgg ci ñun te loolu nag jot nañu jàngale ko ndaw yépp xam ko ndax fi ne boo xoolee lu bëree bëri li xew ci jamono gone gu ndaw bëgg a sol yére yu re bëree bëree bëri mm. du nangoo liggéey xas de gune mën a danaa ko jàng mm. waaw ndax doomi sëñ Tuubaa ñoom loolu lañ fi nekkee woon ndax loolu lañ fi nekkee woon Cheikh Mamadou Moussa li mu daj Cheikh du Fadal li mu daj doomi sëñ Tuubaa yi li ñu daj ci ay coono togganteeg moom gànnaar ci yéen jolof kenn ku ci nekk li nga togganteeg ci ay coono ba nga wëlbatikoo nekkaat fi ba nekk fi sëñ Tuubaa li nga fi liggéey lépp wala sëriñ Saaliw juróom ñaar fukki euh, juróom-ñeent fukki at ak ñaar nga teg projet milliard te gone gu fi am ñaar euh, fanweeri at boo amee ay milliards li nga xalaat mooy am ko te sëriñ bi lépp mu teg ko ci ak jaamu yàlla ak liggéey ak ak liggéey mbindeef yi mu ngeen di wax lu am solo la di ko leeral te mooy ci te bëgg gone yëpp tegu ci jaar ci yoonu siraatal mustaqim mm-hmm. sëriñ Tuubaa daana wax ne mboolem li ñuy jàng xuddan rek mooy tax mu amal ñu njëriñ ak jub ndax loolu rek lay tegtale ba ñu waxee waa ji sëñ Fallou Mbacke kii de ku jàngul de xam-xam bi bëri waaye ku jub la ku nangam la mu ne waaye waaye loolu rek la ñu dee jàng jub jub <laughs> képp lañ ko dee baax na jërëjëf sant nañ leen baax baax baax wax ni eh, xëy na jëkk na ñu woote ci ab télé waaye nag eh, jëmm ji toog nii takk weer yi yëngal bopp bi te am yàlla bi mm-hmm. moom dafa maa laal lool ndax man damaa bëgg murid bu civilisé bu noppi lool ba noppi di wax Sëñ Tuubaa lu neex lool ndax man Sëñ Mbàkke Soxna loolu laa yaakaar asalaamaaleykum wa rahmatulah tabarakallah tabarakallah ah jërëjëf sëy tabaarakallaahu dégg ngeen euh, li mu wax lu am solo la wallaahu yansuru ni wal xalqu tatbau nii fil barri wal bahri za nafain bila darari wax boobu rek euh, moo am solo te wax na dëgg de kuy askanoo ci Serigne Touba wala ngay dem màggalu Touba war nga xam ki ngay fekk jee kan ci ay orma ak teggin xam nga sëriñ Touba mag ñi ko jege woon. Mhm. dafa mel ni jotaat nañ benn téléspectateur euh, Thierno Loum moom it bisimilah sëriñ bi. Mhm. asalaamaaleykum Thierno Lo tabaarakallaahu tafaddal. kilifa gi kilifa gi ñu ngi leen ziar bu baax. ñu ngi nangu ziar bu wér tabaarakallaahu. ñu ngi ziare bokk yëpp. tabaarakallaahu ñu ngi lay ziar ñun bu wér. di leen bi yàlla li ci di génn wax léegi rek muy yar bi kër gi maanaam ku fi bàyyi yar bi yóbbu woo dara ku yóbbu yar bi bàyyi wu fi dara maanaam wax jooju dafa nekk wax joo xamante ni maanaam yar bi mooy doomu aadama yëg gi muy yëg li mu doon ci digganteem ak sëriñ bi maanaam bu bu bu bu ñaari nit taxawee di tukki kii yor sareetu mbaam kii yor Mercedes bu bees ñoom ñaar ñuy wax ni dañoo bëgg a dàqante mbaa ñoom ñaar ñuy wax ni maa lay njëkk a mooy ñoom ñaar am na ci koo xamante ni bii war waayam wóoluwu ko mbaalam wax du dëgg mooy gëm ni sëñ Tuubaa kenn la maanaam ñépp a ngi koy xam ci melokaan wi nga yoon bi nga bi nga mel rek maanaam ci yar bi ci bëgg gi ci yaru gi ci nangu gi waane ndox moo jël te ko ci taal ndox mi tëb rek bëgg a bax te nooyul nuggul tàngul maanaam bu boobaa dangay xam ni am na ko wax lu bokkul ak la mu fas xam nga ne sàng bii nga gis ni mu toogee maanaam jàkkaarloo ki nawleem tooga ki nawleem maanaam rangooñam yi mën a génn ngir yëg gi mu yëg sëñ Tuubaa ba nga yëg loolu mooy protocole bi fauteuil yi sama col bi télé bi nit ñi may xool ñëpp maanaam loola maanaam muur nañ ko muy ndox mi bu demee ba baxte teggiwuñ ko ngeer gi muy ngeer delluwaat ci mu ndox maanaam te kenn mun ta xam fan la jaar delluwaay googu ngay xamante ni bu fa nit tolloo war a delluwaat ci gone ba jooy ci kanamu mbooloo du doon gàcce ci yow maanaam jàngat googu la ku nekk waroon a yëg ni fa ci suñ tubaab di delloo nit kenn mënu ko te borom xam-xam yi nangu nañ ni ku tuub ba yàlla jéggal la da ngay dellu ba mel ni na nga juddoo woon sa ndey maanaam Sëriñ Tuubaa lay topp maanaam ci jamono saa yoo yëgee ni moom la mu delloo la ba ngay gone nga toog ay mukallaf doon xale bu ndaw yëg-yëg boobu nag yël maanaam ngir wane bisam bi ngir santale ko yàlla na leen ci jot ci tay gi ba bu ngeen jógee jotaay bi kenn ku ne yëg ni maanaam sama fa ma branché woon tey jii sama courant bi xol bi yokku na asalaamaaleykum wa rahmatullah tabaarakallaa jërëjëf loo wane na cofeelam ci Serigne Touba te lii te lii rek la ñuy la la ñuy doyee tabaarakal lii moo tax ñu def émission bi képp ku am cofeel ci Serigne Touba bëgg ko feeñal rek mën nga dugg nga feeñal ko mhm. ndax njëriñu ñëpp la tabaarakallah waaw zanaf en bila dara benn xissa rek laay jox jox leen mottali mhm. mhm. waaye ma doon firndeel waaw te taxanteeg téléspectateur bi dugg aca bismillah ma doon feddali rek ma ma doon àggale mooy eh, moom gi nga xam sëñ bi da koo moom alxuraan ci defin wi ni mu ko defee ku ko moomul ku nekk mënoo ko noonu gi mu joxe mag ñooñu kayit gi te na leen bugguma ngeen ne ma weer waa nga ne te néew leen ma kaamil baa ngi ni jëkk mm-hmm. mooy nañ ma jëkk présenté kaamil bu naf door na ma weer wa feeñ te ñetti fan a ci des mbaa ñeenti fan mm-hmm. bañ seddoo këyit gi kenn ko ne ba nga demee sa kër di bind sa kër nga toog kenn ku nekk ci këram ñuy bind la ci gën a yéeme mooy mbind yi ci fooy paas bu ne mbind yooyu ñoo tolloo ah maam Thierno tabaarakallaahu ngeen baal nu ah foofu moom foog nga yeggali ko kon sëriñ bi maam Thierno yow la ñuy déglu aleykum salaam maam Thierno. waaw waay maa ngi lay ziar maam Thierno bu Pikine. waaw maam Thierno Pikine Talibe sa xarit sa wóolóore. waaw wax na dëgg wax na dëgg wallaay wallaay Serigne rek la sopp Warga dëgg la dañu ko grand ngeen ko ci waaw waaw boobu moom nañ sax mën nañ ko tegaat te tamit Mansour tamit damaa nga ñëwaat tuuti ci yoonu géej gi bi sëñ Tuubaa jëlee dagg di julli ci géej gi nga ñëwaat ci loolu tuuti lu gàtt rek nga nettali ci tuuti lu gàtt rek nit ñëpp a ngi lay déglu baax na baax na Mansour a ngi lay dégg xam naa dinañ ko indiwaat incha allah waaw sant nañ baax kontaan nañ torop ñi ngi leen di seeraan nag waaye kontaan nañ torop wallaay tabaarkalla ñang jërëjëf lépp lépp lu ngeen fi wax ki képp képp ku ko dégg rek yàlla na ko jariñ amiin te màggal gi ñëw yàlla yàlla def ñëpp am seeni poos dara mën dem ci jàmm ñibbi si ci jàmm amiin jërëjëf ñang tabaarakala ku sopp Serigne Touba la waaw man xam naa ci dara la kon Serigne bi fi nga yegg li ci mooy eh, maanaam paas bu nekk mbind yee ñoo tolloo masalan bu doon fukki mbind ak juróom benn la boo demee ci kee noonu noonu lay mbindam toll te la ci gën mooy bay wuñ benn diggante bu weex boo xam ne man nga faa bind benn baat kenn ku ne fooy yi nga yor cala yam képp lañ la leen séddi ci kii noonu bañ dëppale ka muy benn mu mel na benn loxoo ko bind ñu jébal ko ko ci ñaar fukki ak juróom ñeent lañ ko jébal kaamil bi ñu ngi joxee kaamil mu leen ndax xam ngeen ku ku mas a bind ah, ñu nga baal <laughs> xam nga <laughs> téléspectateurs yi seen Abdoulahat Mbacke <laughs> ah defe naa Mbacke nag bu duggee ci émission bi dugg na ci këram bisimilah sëriñ bi asalaamaaleykum ah, warahmatullah Mbacke Mbacke tabarakallahu wa jàmm rek tabaraka alhamdulilah tabarakallah tafadal mashkura ngi rafetlu émission a baax a tax ñu ngi la Mbacke waxtaan wi am na solo lool di siyaar kilifa yi tey yëpp di mm. jiital ci nuyoo bi sëriñ Abdoulahat Bousso moom nga xam ne mm-hmm. waaw euh, mu bokk ci eh, liggéey bi am solo bi ñu waajal ci màggal gi mm-hmm. waajaay màggal gi mm-hmm. ñeenti fan ceeru safar di ndokkeel bu baax a baax ci weer wu tedd wi ñu dugg itam di suñu weer ñun jullit ñëpp ndax xewal yi ñu am ci lañ ko am mm-hmm. wi nag wax dëgg yàlla eh, kawe ci ñun ndax eh, buñ duggee ci li ngeen waxoon sànq ci guddi ñaari guddi ndakaaru yi dugg ci sëñ bi jéggale gi mu jégal noonu yi xaw naa tooyal xol yi bu baax a baax waaye foofu moom moom moom moom lu lu yéeme la loo xam ne yaakaar naa <laughs> murit bu nekk dana tooyal sa xol mm-hmm. waaye nag ñu dellu ci gën cee jàngaat bu baax xam ne Sëriñ Tuubaa mm-hmm. moom lépp dundam gépp loolu la mooy jàngale te mm-hmm. bañ koo yéemu rek yem ci lépp koo xam ne tooñ tooñ nañu wala ñu gis ne am nañu ne mett na suñ xel dem ci sëñ bi jéggal gi mu jéggal ñëpp ñu ñu marché euh, ànd ci loolu bu defee danañ mel ni sëriñ bi bëgg ñu mel ni Euh, ñu ngi siyaar tam mbokk moom dañu suñu xaadim sàmm moom du suñu oh. xarit bu baax moom it ñu koy ndokkeel moom it bis bi ak mboolem ñu nekk ci plateau bi dëgg yàlla ay wax ju rafet ak xam-xam génn na fi jàng nañ ci bu baax waaye di wax ni rek ne sëñ bi moom dañ ko waxtaanee gudd mm-hmm. ndax dañ ko dañ ko teel a dañ ko teel a waxtaane damaa xam ne dañu waroon a waxtaane mag ñi nga xam ne ni ñoom la di xaar ba noppi ndeysaan que ndax koo xam ne nii ba nga nekkee ca ca sa daari wàjjur di jàngale da ngay bind ay téere ñu koy jàng ci daara ja wallaay ndeysaan kooku waxtaane mhm. dañu waroon a waxtaane mag ñi nga xam ne ñoom la di mhm. ndax euh, suñ suñu jàmbaar ji Cheikh Amadou Fadal daan wax naan mhm. léeg-léeg soxla ne ne ne jëm sama kanam ba rëy lool ma ma ma bëgg caa woo sama waa ji waaye ma xam ne ma xalaat ne ëpp na ci damay woo kenn ci taalibe yi rek mu fajal ma ko. kon kon taalibe yi lañ leen magi taalibe yi sëñ bi defar la ñu war a waxtaane bu noppi ko waxtaane sëñ bi lii ñu ñu ñu bokk ci ñi nga xam ne dañuy fas yéene defar ci wane image bi nga xam ne nii moom la internet bi yàq ci ci yoon wi ak lu mel noonu ku nekk jàpp ne xëy na sëñ bi li mu defoon ci ndaw ñi lépp dafa dafa dafa wisaaroo wala dafa nàngam ñun ñu gis ne au ñu nekk fa di di leeral ak di wax ñu ñu ñu a fexe wane li sëñ bi am ci ay ndaw jàmbaar nga xam ne liggéey sëñ Tuubaa rek la ñuy def mm-hmm. fas yéene ko wane ci kat safar bi te yéen ngeen am dana ñu ci liggéey bu am solo ñu ci sant bu baax a baax euh, euh, directeur bi mm-hmm. euh, jaarale ko sëñ Mansour sëñ mm-hmm. Xaadim ak mbooleem yéen ñi jàpp ñëpp wax dëgg yàlla bu ñëwee àggee ci bis ngeen xam ne ñun sëñ Tuubaa am na ay ndaw yoo xam ne ay jàmbaar lañ ay exemple lañ ñu war roy lañ kon kon ñu ngi ñu ngi sant bu baax a baax tey gërëm dañu tey loolu wax ci télé waaye suñu xol dafa sedd ñi nga ñi ngi wax daal Touba gépp ak ñi nga xam ne ñoom bokk ci kuréel yëpp ñu ngi siifur waxtaan wi tabarakallah di àddi ko ànd ak yéen ba ba saa su ne ba gi jeex rek yéen ko fa seen àndal ndax daal seen liggéey rafetlu nañ ko tabaarkàlla yàlla na leen suñu Touba gën a taxaw te yokk xéewal bu baax a baax gën a yokk télé bi bañ ba ba seen njottu weesu na ko jërëjëf Mbacke defe naa ne nag euh, bu nu wootee Touba moom. <laughs> <laughs> day mel lépp mat na. kon nga mottali tabaarakallaa sëñ Maodo mooy li ci gën yi mooy mooy diggante ñoom kenn desul benn diggante boo xam ne nii. am na foo mën a bind baat. xam ne kañ bi ko dëppalee mel na benn loxoo ko bind. Mhm. bañ ko indee jébbal ko ñaar fan ak juróom-ñeent dana leen ndax xam ngeen kenn ku mas a bind téere ab kaamil mbaa mu bindlu ko ci ñetti fan. ñu ne ko di leen Mbacke muy leen inni laa udii'u amala aamilin minkum du ma sànq jëfi kenn ci keroog loolu loolu la leen wax mooy itam moom gi ko moom tey ñi ñiy mokkal alxuraan ci Sénégal mhm. di ko bind xattan wa tilawatan ah, nga baalaat de sëñ Moxtaar xam <laughs> naa leen pikiir nag ah, yéen leen pikiir de kon foog may leen tuuti waaw kay Touré jërëjëf Touré dafa dal mashkura yow la ñuy waaleykum salaam wa rahmatullah. ñoo ngi leen di ziare bu baax a baax. ñu ngi nangu ziar bu baax Touré tabaarakallah. macha allah émission bi neex na teg na ci yoon. wàññil sa télé tuuti rek. a ngi macha allah waxtaan wi neex na ñoo ngi koy dégg bu baax a baax. wallaay dëgg la Touré. xanaa li ma bëggoon rek ñu dolli ko ci mooy. Mhm. comportement yi nga xam ni yenn murid yi dañ ko indi Touba. Mhm, mhm. ñu dolli ko ci waxtaan wi. loolu dañ ko doon ñu ngi ci doon ñëw. dañ ko dolli ci waxtaan wi daal ndax doon moom lañ doon <laughs> mujjee bay màggal si nag mën ngaa wut. bu baax mu dëppoo. waaw walaay ba indi ko. waaye jumaa ji bu ñu xoolee borom pantalon yi dafa mel ni ñoo gën a bari ci lu ñu dugg. dëgg la dëgg la. te nag sëñ Touba waras na ko warmaa ceeb jol. Mhm. ci jikko euh, rawatina jikko waaye nag. col yéen waras na koo bàyyi xel.

te buñ ca yeggee it incha allahu da ngeen da ngeen xam ne. Mhm. direct de ñëpp dañ koy def. waaye direct bu mel ni DTV moom amul fenn amul fenn fii rek la ci image. dëgg la yàlla rek moo tax ñuy wax. dëgg la dëgg image. Mhm. son. Mhm. def naa sëñ xaadim mii. tabaarakalaaw ak équipe bi. mboolem lu nu am ci matériel. ci wàllu journaliste. Hmm. amul kenn koo xam ne dafay des. dëgg lañ léppay dem tabaarakallaaw ñëppay dem. kon loolu ngeen xam ne lii ouverture la rek. Hmm. waaye ñu ngi ciy ñëw incha allah. Euh, dafa mel ni ah Dudu kan tabaarakallaahu kon Dudu bismillah. kan jili kan jili kan waa ca bismillah yow la ni déglu kan. ñoo ngi lay ziare ci rafetlu émission bi. wallaay jërëjëf kan jërëjëf kan. ah waxtaan wi rafet na trop. jërëjëf kan. murid yëpp kontaan na ak waa lislaam yëpp ndax suñ tubaa si jiit na lislaam wallaay bu wér mhm. ñu koy sant fii ci mhm. Sénégal ak fépp mhm, dëgg la di ñaan waa Touba ñi fay ñëw ñëpp comme adduna bi dafa xaw a tas ku gis loo xam si ni wutewul ak wute na ak dëkk ba ak gan yeeg lu mel ne ay lii xew léegi ñi ray seen bopp ak di di takkoy bomb ku gis loo nga xam si nii wuute wuute naa dëkk ba nanga ko teel a ndax ñoom dañoo bëgg fu mbooloo daje léegi dañ ko gën a bàyyi xel di sant tey defal émission bi tey ñaanal deeti suñu borom yokk ko te dina yokk sax amin yaa rabbi amin yaa rabbi amin jërëjëf yaa rabbi tabaarakallah waa aca waa bismillah ndax loolu muy wax waaw Sëñ Tuubaa juboo na ak boroomam juboo goo xam ne xasida googu mafatihul bichri day wax naan ci biir fiika wa alwahaabu yaa man bihi lam tanxunil irhab yow sunu boroom ci sa jëmm ju tedd ji ak daraje rasulillahi sallallahu yaa ma defal fu ma nekk terroriste du fa jaar moom wax irhab ku ne xam na ay wasax-saxal arab rawa ay mbell ak ay yoy mom ndax batinu sëñ Tuubaa ëpp na loolu deug la wa maskani sallim min al fujjaari wa am ala al ahli bi maa in jaari loolu moom dafa dafa ni nak turondo sëriñ bi ñëw na de waaw turondo sëriñ bi ñëw na kon Cheikh Ahmadou Bamba tafadal mashkura tabarakallah ñu ngi nangu ziar ah ma ngi ni di nuyu ñëpp Mm-hmm. ñoo ngi lay delloo nuyoo bu baax a baax a baax mm-hmm. a a baax. man damaa daanu jël. ndeysaan. damaa bëgg wax li ma Serigne Touba Mbacke defal. loolu sañ nga ko waxal. Serigne Touba damaa defal. Mm-hmm. damaa nekk ndaw lu tuuti samay waajur amuñu dara. ma daan wër di jaay jet. boobu ñu jëkk ca Kajoor. man tamit ma nekk mbuur ma ne xaaral man daal ko ñaax mu la ma jël oto dem Touba dem ca barabam ba jënd ay la ñaan li ma ni yàgg na man yàlla na ma yàlla may soxna su ma toog bi yaay ak bi di kalaal ma rek ma daal dugg oto dem maanaam ma di ko ñaan yàlla may waxee yow nii Serigne tubaa defal na ma teraanga joo xamee ni maa ngi ci tedd maak sama njaboot ak samay bokk te it xam naa ni su ma tëdd ba guddi ñu tegal ma walla su xaalis ñu ma pëkk pëkk ñu ma jugal màggal tubaa ji tey ci guddi jii la ñaar mooy mën a nekk jëlal walla su xaalis bi nga dem wala boo génnee gaynde dina la lekk ma summeeku dem gaynde gi lekk ba man <laughs> maanaam sama diggante Touba moom kenn mënu cee dox Touba rek inter bi taalibe Serigne Touba yi ñun nga xam ci ay murid lañu lu baax rek la ñuy def boo nee murid rek kooku baax la boo tax bu ñu wax naan murid bu ñu wax wax tudd murid ñu nan def nii maa danoo ju danga naan am na ñoo xamee ni ci yoon wi dañoo war di def dañoo war di def nii waaye ba nga leen mujjul rek nga daj ci bi ndax maa ngi sama ñeent bant yoo xamante ni bii njaboot sëriñ Tuubaa laa ko ci def te lu ma am na ci màggal bi dinaa ko ci def te bu ma ko defee at bu ma def parce que at am naa at moo xam ne ginaar laa ren bi fi ma jaar du ma la ko wax de te nagu téeméeri junni laay laay laay laay ci màggal bi te xeeb naa ko nag te am na sama fukki moom bi def téeméer lu ëpp li ma def te bu ma sañaan mel ñoom nag ma ni samay maam suñ toppal sëñ bi ñu seexal ñu ñun kon topp ñu sëñ bi ba seex ñu ma ñu dañuy topp njabootu Sëriñ Tuubaa bi te suñu maam yooyu nga xam dañoo jébbal Sëriñ Tuubaa ba ñu ñu juddu ci suñu maam yi dañuy sant nag ba kere ñuy def aajina gisante ak Sëriñ Tuubaa mm. man daal Sëriñ Tuubaa laa bëgg tey moom laa bëgg ëllëg baarakallah jox naa ko sama guru jox naa ko sama lépp barke Seydina Muhammad man ak laa bëgg ñoo yow man ragalu ma sawar sëñ Tuubaa laa bëgg ndeysaan mën naa gis sëñ Tuubaa rek la wax ma ragalu ma sawara bëgguma àjjana xam nga laa bëgg sëriñ Tuubaa laa bëgg a gis mm-hmm. te dinaa ko gis nag sama xol jox naa ko te ku ma bëgg doola mm-hmm. ngeen jéggal ma nag barakallahu ah euh, cofeel fa la de waaw cofeel cofeel cofeel cofeel fa yow euh, li nga wax da nga ne Serigne Touba nee na euh, bayit bu am solo nga wax defe naa ne ci wàllu terrorisme yaa man bihi waaw kon terrorisme c'est ah. garanti du fa am kon ki doon woote na xelam dal te xam ne kii xam nga dafa xam nga mbir mi li tax mu yéeme xam nga léegi euh, euh, Cheikh Ahmadou Bamba turandoo moo duggoon léegi na sëñ Fallou Mbacke moo dugg mm-hmm. sëñ Fallou Mbacke mooy woote nii kon sëñ Fallou tabaarakallaahu yow rek la ñuy déglu salaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatullah mm-hmm. ñu ngi ziar bu baax ñu ngi nangu ziar bu baax tabaarakallah jërëjëf jërëjëf mm-hmm. ñu ngi euh, rafetlu émission bi tabaarakallah ak waxtaan bi baax a baax te di ci dollee sant suñu baax te itam dina wax ni euh, ni ngeen def ni nii la ndax señ bi mom jamono yi ngi koy waxtane rek suñu borom day wacce yermani lolou yentou sa sax moko wax lolou nak motax euh, ñu am mbégte lu reuy di dugg ci waxtane di nuyu suñu Abdou Lahad Bousso boobu nga xam ñoo bokku yë kay ci tolu señ bi ñu koy ñuy rafetlu tamit euh, di nuyu bokk yoy tew ci plateau bi yépp barakallah te di leen ñaanal jàmm. di nuyu mbokk mboolem waa DTV. tabarakallah di leen wax ne daal euh, foofu la foofu la. wallaahi Sëñ Tuubaa moom. ëpp naa bañ a waxtaane bu ko defee euh, ñu ñu fàttali wax ne ne ñuy sàkku ay ñaan. ñu mhm. ñeenti fan ci safar boobu. Mhm. ñaan murid yëpp ñaanal ñu ci ñu am ci liñ ci bëgg. Mhm. liñ ci bëgg nag mooy ngërëm Sëñ Tuubaa. buñ ko amee tamit ñu ñëpp ñu bokk. ci wàcc Sëñ ñu jégalu bu baax jërë ngeen jëf. wallaay ah jërëjëf sëñ Fallou de bu duggee war naa dugg tabaarakallahu yàlla na yàlla barkeel. Euh, kon man fi ma bëggoon euh, surtout ñu ñëw ndax xam naa temps bee ngi dem. Mhm. tabaarakata téléspectateurs yi ku bëgg a dugg tamit numéro bi mi ngi affiché mën nga dugg. Mhm. mooy li sëriñ bi sànq wootee dafa am solo. Mhm. mooy demin bi ci tuubaa jar naa xool de. ndax tamit booy dem xam ki ngay fekk ji mooy kan. lu am solo la xam nga am na ku woote sànq ne teel ngeen sax waxtaane sëñ Tuubaa mais waxtaane leen mag ñi xam nga lu mu ci jublu <laughs> mooy teggin ak orma bu nu joxoon sëriñ Tuubaa amu ci benn cheikh bu ko musa nuyu te yore woo njàpp boo ko daan nuyu da ngay yeesal sa njàpp ba pare door a dem nuyu ko dafa am benn bés benn mag ñëw di ko jox si addiye yeesal njàppam fekk fàtte dërëmu ngurdu fi mu doon jàppee ba mu waxtaanee sëñ bi mu ne ko ah mbàkke nga baal ma de addiya bi ma la naroon jox dama koo fàtte fi ma doon yeesal jàpp mu ne ko kon demal jël ko am nga ndigal mu ñëw fekkaat fa beneen dërëm mu toog une temps di xool ñaari dërëm yi ban la ci moom ba mu dellusee ci sëriñ Touba mu ne ko ndax gis nga dërëmu ngurdu bi mu ne ko mbàkke damaa ñëw fekk fa beneen dërëm te mbàkke bëgguma laa jox dërëm boo xam ne moom ma far bàyyi fa ñaar ya mu ne ko iblis te benn fiir lala la dese woon boo laaloon dërëm ba mu xalab la sànni la ca safara kitaabun karimun min karimin mukarramin bihi kufitu aadaa wa zanba wa shirka léppam alxuraan la léppam sayduna muhammad foofu bëgg naa ngeen ñëwti de wax façon demin bi tamit nan la ko nit ñi war a waajee ak nan lan fa war a demee ah abdou afiya ngeen bal nu mi ngi woote ba Paris tabaarakallahu kon mm-hmm. mbir mi c'est international mm-hmm. Mm-hmm. ah kon Abdou Afia ñu ngi lay nuyu bu baax asalaamualeykum asalaamualeykum aleykum salaam wa rahmatullah aleykum salaam wa rahmatullah ah dafa mel ni réseau bi tabaarak xam naa dina ñëwaat mu mm-hmm. ngi doon woote ba pari kon tabaarakallahu wane na cofeelam ci sëriñ Touba. xam nga sëñ Touba waaw dafa bëgg Seydina Muhammad jege yàlla jege goo xam ne mm-hmm. dafa dem bu diggante ak sunu borom mm-hmm. dafa wax ne sax najji janaabi min jawaarin mushrika wa mushrikin bil mustafa bi nu mudrika yow yàlla fépp fu ne kat bu góor ak bu jigen bu ñu fa jégué sax waxuma la nak kuy xam doxna bu dem na ba ñaan suñu borom kat bu góor ak bu jigen bu mu nek ci wetam ta inna allaha tabaarak wa taala tayyib la yaqbalu illa tayyib yàlla dafa lab ta lu sellul du ko nangu ta ko tan ni seigne touba barab bam be mu dëkk wajjalhu ya rabba ahabba maskan

ñaan ci yàlla ak jëmm Sëriñ Tuubaa. Mhm. am nañu yàlla def ay mat. amiin yaa rabbi. dëgg yàlla dëgg naa ci man maanaam su ma faral di woote yi ndax damay waaye nag dafa am sama benn waay bi ñu wax xaadim bu moom toog moom day sama wëllëre lool yaroon ndox moom moom. jërë jërëjëf sëñ Afia yëg bi rek euh, tabaaraka ak cofeelam ci sëñ Touba rek doy na ndax loolu rek la doon béral waaw mi ngi wootee tabaarakallaahu ba Paris tabaaraka yàlla na ko yàlla fay ak mbooleem tabaarakallaahu ña fa nekk ñoom it leen fay ut yàlla na leen ko yàlla defal xam nga lool c'est très important dem ba nekk Europe sa xel mën a dem ci Cheikh Ahmadou Bamba kon wane ne yaa ngi foofu waaye sa xol soppeeku ku de marajal bahrayni yaltaqiyaan baynahuma barzaqun laa yabxiyan waaw loolu rek lay firi waaw pas-pas dafa am solo kon nga mottali foofu laanat leel qulub wal abdaan saalamanil biidaan wa suudaan yàlla moo ma nooyal jëmm yaa xol yi moo tax ku weex ak ku ñuul ñëpp dan may may jàmm yàlla defal ma loo xam ni ñëpp ma ci ñee ilay yaqaada maa bihi yaxbitu nii kullun wa kullun zairun li watani ñëpp a ko xemmem bëgg ko ñeema ci moo tax ñëpp di daw ñëw sama dëkk bi pour ziar si ma te fi maskin qaaidaha tuuba xarasaha allahu tabaraka wa taala min kulli makruhin wa maxuufin bi jaahi man haajara qaaila ilayha tuuba suñu borom moo ko aar moo tax bi natt yi waree ñëw suñu borom dafa ko xam ne faw nga génn tuuba ndax aar naa ko aar goo xam boo fi nekkee dara du la fekk kon kooku doon wax bu yoba mu dalal xelam nun war a mel kay ñun mooy dem bi dem bi mhm. teggin yi mhm. ndax ay teggin dafa am solo nga xam ni tamit dangay ngay wuy ji koo xam ne léppam da ko jox yàlla te léppam sunu borom da koo nangu te amu ci lenn lenn loo xam ni wisit na ko gis ci lu dul noona kon boo bëggee yow tam ci biir mu mu jaar jaar ci loola mhm. màggal gi màgg na màggaay goo xam ne maanaam attan na lu ne dëgg la waaye itam euh, xëy na am na loo xam boo ko defaroo day tax mën naa gën a yéwénal say mbir dëgg la waaye moom Sëñ Tuubaa moom attan na lu ne moom ndax yàlla ndax dégg naa ku mës a wax ne euh, ci ci ci ci mag yi muy sëñ Mbay Jaxate mhm. dafa am benn bis mu génn di doxantu ànd ak benn taalibe bi mu génnee di doxantu maanaam am koo xam ne kun dajanteel bi sëñ Mbay ñëwee ba yegsi ci biir kër gi ne donga bi fere yi kooku ñu dajaloon mooy kan ci fere yi donga bi ne ko kooku de soxna si diw la mhm. sëñ Mbay ne ko yow day def nga loo xam ne mhm. araam gën a araam yow mi xàmmee ndax góor la wala jigéen la ndax wax na ne yowmal xiyaamatal akbar am na sa garab goo xam ne mu ngi ci biir jahannama xob yi nga xam ne mooy mooy mooy mooy rote ci garab googa xool bi ngay xool jigéen nee na des na la ci tuufe sa bët yi balaa ngay dem balaa ngay dem aljana donte na nga dem aljana bi mu waxee loolu ba noppi xam nga ni ko dong bi wax waaye man de loolu kenn du ma ko def mu nag ana foo ko teg mu ne ko sëñ Tuubaa sëñ Baye Jaxate ni ko mën na ko de waaw baarakallah ah waaw dafa mel ni nag temps bi moo nu xaw a dab ah. waaw temps bi xaw a dab waaye tabaarakallah mbir mi neex na euh, kon sëñ Modou yan kàddu ngay daal di tàggatoo waaw di sant yàlla bu baax mhm. tey julliwaat ci Moustapha na sallallahu alayhi wa sallam mhm. di wax ni li sëñ bi wax mhm. ci ne natt yee nam doon ñëwee saa su ne suñu borom di ko tegle ba bis bi bu ñëw bis mu ne ko tey natt yi jeex na ay xéwal mooy ñëw xéewal yi nga xam ne du dog ba wax wa kullu aamin waa fii nii mawaahibuhu bal kullu waqtin ba si yàgg sax mu ne waxtu wane sax yuwaasii ni bi minnaati loolee ñu ngi ñaan suñu borom mu defal ñu. yaa rabbi amiin ci barkeb Cheikhul Khadim. jërëjëf jërëjëf Diop tabaarakallahu sëñ Modou Ndiaye. soose waxtaan bi am na solo tabaarakallahu mhm. naa li ñuy tëjee rek mooy eh, kaddu gi ñu ngi daane léegi mooy eh, Tuubaa ci boppam ñëwin wi. bisu màggal ga lu lu mat bàyyi xel la waxtu yi su yaatu na xëy na des wax lu bari bari danañ ci ñëwaat sax waaye Tuubaa day barab boo xam ne ku ko xam ak la fa ne war ngaa waajal sa bopp ci zaahir ci baatin ci noo deme demee Sëñ Tuubaa moo bindal boppam wax ne inna allazina shahidu fi lmaaraki mujahidina kulla abin mushriki liya nawaalun fiiha yaxbatuni kullun wa kullun zairun li watani nee na gaa ñi àndal lu yonent bi salaam doon xare badar te ñi doon xare ba Badar wax nañ ne seeni daraja waxuñu ñoom waaye fas yañ waroon puurit ma rek moo wat ma jëfi wal liyu kamaal mun mm-hmm. a ñooñe ba dañuy ñëw sama réew mi di ma siyaare si boobaa kon ku ñëw ci ñoom ñoom ngay dajeel mhm. kon kuy dajeeg nit yàlla yooyee war ngaa waajal sa bopp ci zahir ci ay teggin ab yar mhm. lépp luy jikko ju bon nga dindi ko te làmbayoo jikko ju baax mhm. jikko ya baax ya nga fay fekk nga di jël ko te fas yéene ko yóbbu fa nga dëkk itam loolee lu ma ta bàyyi xel te te it dëkk ci dëkk bi ñu taatal ngan ñi teral leen wàcc lal yi berndeel ndax loolu mooy li ñu amee sëñ bi sëñ shukrul ilahi xaana fi turaabi baada jamili sabri fi xtiraabi nee na eh, sant ci sama réew moom muy Touba ba mu koy ma nga ci tukki ba waaye ne sant yàlla jot na gannaaw bi muñee muñ ko rafet muñ ko rafet la muñ ci nattee ko suñu borom te ko amul fu mu ne yaa ngi doon tudd sànq bi muy nettali ci njaareem rabb googu ko jamono njaareem la ko doon nettalee mag daa wonk mm-hmm. mbàkke da loolu metti mu ne ko waaye salituma fa waaye salituma kon lu mat a bàyyi xel bis la mm-hmm. boo xam ne daal mm-hmm. ñoo ngi soññi sun bopp di soñ ñëpp ñu bàyyi ko xel ci waajal ko ci jàng alxuraan jàng xasiida waaye bernde mhm. tey lépp luy jukko judum noonu ñu summi ko sànni ci àll te fas yéene bañ ko bañ a taxo taxo mhm. taxliya ma taxliya day am ba noppi ñu door a am taxliya mhm. summi ko jikko yu ñaaw yi rasail yi mhm. buñ noppee ñu rangoo fadail yi mi ngi gënee yi mhm. noo ngi ñaan suñu borom fekk la nu ko Cheikh Sidi Mokhtar mi yàgg fi lool ñu yàgg ko màggal ci kanamam moom te suñu borom def ni xéwal yoo xam ne lépp lu ñu a waajal bis bi def ci bis bi def ci lu ko way njort ndax loolu rek mooy bëgg sëriñ bi jërëjëf Ndiaye jërëjëf Ndiaye euh, yan kàddu ngay waaw xanaa yi ñuy daanee rek xanaa bëggoon naa wax ci yenn yi wax sax waaye sant bu baax ñaari mbokk yu baax yooyu mooy Cheikh Abdoul Ahad Mbacke moom suñu xalil moom suñu fàllu di jiite nga xam ne moo jiite liggéey bi ak Cheikh Amadou Fadil moom suñu rafaa yi moom suñu ñoom dugg nañu baax ay mbokk yu baax lañ yoo xam ne liggéeyal seen maam rek moo leen ñor ak mbooleem ñi nga xam ne ñi ngi liggéey bi di ñaan yàlla eh, li sëñ bi wax ne rek inna alladina saaramu xidmati fa lahumu diyaaru wastal jannati koo xam ne gaaw na ci dima liggéeyal ay kër yu bari lay am ci àjjana yàlla nañu yàlla defal loolu eh, bu dee ci xëy na soññee bi ñuy defaat ci xam ne ñooy ñëw ci jëmmi Touba Touba yàlla da ko da koo teral ndax dëkk la boo xam ne ab tubaab musukoo moom ab buur musu koo moom loolu mën nañ cee bàyyi xel tey it liñ wax am na mbokk mu ne sax am na ñu muy gis ci jumaa ji ñuy sul tubay waaye foofu moom li ma ciy kii rek mooy sëñ bi teg na daayira boo xam ne ñoom ñooy saytu war may Touba mi Moukhaddamatoul Khidma ñu ngi ciy def liggéey bu baax ba am na yenn yére yoo ne sax ku sol di góor moom moom dugg jumaa ja kon loolu ñu ngi ciy kii mu ngi des ci nit ñi ñëw waaye Touba moom depuis 1981 Cheikh Abdoul Ahad jëloon na ay matuwaayam yu wér uh-huh. wax ne kat dëkk baayam bii li fi siñ bi bëggoon doonu dara lu dul eh, jaamu yàlla ak liggéey yonent bi sallallahu alayhi wasallam aaye fa tux naan sàngara tëgg football ak loolu lépp amul benn dëkk boo xam ne du am loolu loolu Touba te sax ñëpp laxat philosophie bi mu amoon boobu muy aaye fa cigarette googu dem na ba ci 2017 2016 waaye Sénégal waaye àddina bi sax di aaye ci espace public yi tux dem ba ren ñu génn loi boo xam ne day dañoo bind ci kaw ne kuy tuxkat lii la lay def te Cheikh Abdoul Ahad 1981 la ko aaye woon kon mbokk mi wax ne waxtaane mag ñi rek euh, maanaam euh, doy na luy defarum réew fee foofu ma fi yokk mooy li may daaneele rek mooy ñu xam ne màggal gi cëslaay li lépp génnul diine génnul dara ndax jàng alxuraan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na inna afdala ibadati ummati xiraatul quran di gën ci jaamu yàlla sama xeet yi muy jàng alquran te loolu la sëñ bi digal wax na ne te wajhu lazi yatlu kitaaba rabbi yab yaddu yowma alxashri baxdal qurbi te yàlla nee na yowma tabjaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun fa amma lasi naswaddu wujuhum akafartu ba'da imanikum fa suqul azabi bima kuntum takfurun waaye la ma ca ñor mooy la sëñ bi wax yab yaddu yowma alxashri yàlla nee na wa amma lazina yabdad wujuhum fa fi rahmatillahi hum fiha xaalidun kon loolu la beneen bi mooy joxew ñam itxaamu taam yonent bi nee na am ñi ñett yoo xam ne yàlla bëgg na ko lool muy iqraau dayfi itaamu taami wa ifshaau salaam muy teral gan inna iqraau dayfi min al imaan yonent bee ko wax man kaana yuminu billahi wal yawmi al axir fal yukrim dayfahu yonent bee ko wax kon mboolem te yonent bi waa kër sayidna aliyun ba leen yàllay tagg ci alquran wa yuthimuuna taama la wax ala xubbihi miskinan wa yatiman wa asiran loolu doog mooy màggal gi jàng alquran berndeel nit ñi ak teral gan ak sant yàlla sant yàlla da nek mbir mo xamne yàlla lu wax waskuwul wala takfuru na ngeen ma sant te bu ba do la waxar fenen la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid waye wa keur sayyidna daawuda ba yàlla defale loola wa alanna lul hadid lum len wax ihmalu ala daawuda shukra wa qalilun min ash shakur yeen dibi tam bako yàlla tanne lum ko wax badillah fa'bud wa kum min ash-shakirin bam ko yobbo isra wal mi'raj lum ko wax bam koy tag innahu kana abdan shakura kon lolo tax sëñ bi ne nawaytu shukraka fi sarhami ya samadi yallahu salaini qabla Ra'i wa shini leppam ak tiant la lolo rek mo waral magal gi te lepp ci dina la tege ñu ngi leen sant bu baax yeen wa télé bi di ñaan yalla yalla leen bu baax ba ñeen deg ci aduna bepp seen liggéey rafet na te liggéeyal Serigne Touba mom la Serigne Saliou waxon rek magal gi foofu ñaar ki ki diko ko diko ki ki diko fonk ki diko ko fonk ko fonk dana Tim lu bare bare bare ka ko dul fonk te yéen fonk ngeen ko yàlla ngeen ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh tabarakallah ah señ señ khadim lay tagato mhm. xamna fofu mu dané rek ci jël sa lepp jox ko señ Touba yakarna suñu directeur programme de Mansour Sall ngi euh, mom ñoo and joge Touba ci mu saytu wat liggey ba ngir nu mu fa mën mucc ayib ngir lepp ñu mën ko jël mais ñu bayyi xel ni mm, DTV mu ngi ci biir terrain bi fépp fu ko soxlaa fii ba ñuy àgg ci bisu màggal ga di bisu bis bu tedd ba ñu ngi ci biir dëkk bi di def ay reportage ca incha allahu rabbi reportage yooyu la ñu fas yéene di ànd ak yéen ba ca jouru màggal Tuubaa ga ak i plateau mhm. une semaine avant màggal incha allahu rabbi mhm. équipe bi ñëpp dinañ àndandoo teew Tuubaa mhm. ci liggéey bu mucc ayib ci liggéey bu ànd ko taalibe ndax loolu la nu fas yéene liggéeyal sëñ Tuubaa lépp loo xam ne daal lu mata wone la DTV mu ngi ci tàllal loxo mboolem jullit yi mboolem taalibe Serigne Touba yi ngir ñu ànd liggéeyal Serigne Touba ñun ñëpp ñu am ngërëmu Serigne Touba maa ngi nuy nag sëti Cheikh Mamadou Fadal yi nga xamante ni ñooy taxawal lu am solo la nga xamante ni yaakaar naa euh, waaw ñeenteelu fan la ci safar buñ ci doon dellusiwaat rek ci sëñ bi wax ni nan waxtaane mag ñi ñoom ñii ci ñuy ñiy defar ndaw ñi ñoom rek mën noonoo waxtaan ci ñoom ndax lee ñuy def maa barki dem bi ma toog ak ñoom rek maa ngi leen di wax ne ne yéen ak sama sëriñ sëñ xaadim mbàkkim sëñ mbàkki soxloo yéen a bokk benn méthode mooy di liggéeyloo xale yi ci xasida yi sëñ Tuubaa yi di leen tariloo di ci def ay concours ñu am luñ ciy gañe yéen a bokk benn méthode ban ni ñoom utaloon nañ ko benn piri boo xam ne daaw lañ ko utaloon ngir jox ko ko mu doon liggéey bu am solo boo xam ne nii ñoom sëti sëñ Tuubaa yi ñu ngi koy liggéey kon yàlla nañ ci am ndam ah. màggal gi yàlla ci àgg ak jàmm ci barki sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa defal ñu xéewal ak wér ak sutura ci barki Serigne Touba ba nu àgg ca jërëjëf oustaz ñu ngi bëgg yow programme bi ngeen def fan la ci jàkka ji la euh, mbir mi ci mbaarum daar Xuddoos la mbaarum Daaru Xuddoos mooy ci penc mi nga xam ne ci la sëriñ bi gisee woon ak rasulullah sallallahu alayhi ah. la moo xam ne mu am wàccuwaay la ci lislaam mu am wàccuwaay la àllarba gii di ñëw lay doon incha allah programme bi fukki waxtu ak ak ci bëccëg muy 15 heures ba 20 heures lay am danañ fa defal lu baree baree bari loo xam ne lépp génnul liggéeyal sëñ bi mm-hmm. ak wane xam-xam ak wane mag ñi nga xam ne ñoo àndoon ak sëñ bi danañ fa sargalet tam ñi nga xam ne mm-hmm. dañuy liggéey ci toolub sëñ bi ci wàllu mbal xuraan ñuy liggéeyal toolub sëñ bi ci wàllu xasiida mm-hmm. ñuy liggéeyal toolub sëñ bi jàng xasida ak ñi nga xamante ni dañ daan jàng xasida ñoom it danañ leen sargal bu baax a baax a baax a baax ci bis bi ñu ngi ciy woo ñëpp di ci woo DTV ñoom it ñu ànd ci ñun baax a baax a baax incha allah ba defee am na tamit benn documentaire bu am solo buñu defit bëgg nañ tamit di ko ñaan documentaire bi yaakaar naa Mansour jot na ko incha allahu rabbi dina daw suba incha allah wala gannaaw suba. incha allah loolu tamit dinañ ci baax baarakallaahu ah jërëjëf jazakumullah anna xayra jaza kontaan nan bu baax mhm. ndax waxoon naa ko ne euh, plateau ci xam-xam lan soxla waaye soxlawul folklore te yàlla musal nañu ci jataay bii ba caaxaan amu ci ndax ki ñuy waxtaane daf ne wa chixtu bi rabbil arsi zil juudi wal afwi maa al mustafa wallaahu li muxbil safwi suñ xaadim xam nga man sama sëriñ sëriñ Babacar Si waaw waaye Serigne Touba dama ko sopp yow xam nga loolu. dëgg la dëgg la loolu xam naa ko baax invité naa la sama programme jox la micro ne la taggal Serigne Touba. xam nga loolu boo yow doo ko mën a seere sa bopp. oustaz mhm, mhm. daanaka temps bi jeex na. Mhm. bëy yi nga sulli yëpp. ci xaside yu wuute. ku gëstuwul sëñ bi. doo ko mën a xam. ca nit ki bala nga koo gëstu da ngay am ci moom cofeel. wallaay dëgg loolu rek laa doon bëgg a seere. xam nga lu nu ko def. sunu maam. sunu musaan di gàmmu doxoo ba. daf daan wax alaaji njaga wëyal soxna jaara ndax xorom la ci cin ku togg te defoo ci xorom du saf sëriñ tuubaa lu waaye def war ko cee dugal te wachitu bi rabbil arsi zil juudi wal afi maa al mustafa wallaahu lii muxlidu safi ku kii ku ko soppul koy sopp ah? damay wax ne nag di joxe nag exemple ca buxaari ak muslim bàyyi fi sëriñ tuubaa waane la ndax Buxaari ak raw nu ko te it ci réew mii lañu dëkk waaye loolu danañ ci ñëw beneen yoon tabaarakallaahu temps bi jeex na tàkk yal na yàlla fay leen bi barakati rasul ñii dem ñëpp tabaarakallaahu yàlla ñëpp dem ci dinañ ñëwaat nag ci plateau yi di gën tamit ñaax chauffeur si tamit ñu gën ci dugg ñoom ñu dugal ci seen loxo mm-hmm. tabaarakallahu ba ci yoon wi ñuy nelaw te xam ne ay taalibe sëriñ Touba la ñuy yóbbu loolu yooyu yëpp dinañ ci ñëw ci comportement ci wàllu chauffeur yi ci wàllu ñuy dem loolu yëpp dinañ ci ñëw lii nag tàmbali la rek waaye suba ba 18 safar fii ak TTV kon ñu ngi leen di sant mbokki téléspectateurs yi ci temps bi ngeen xam ne abal ngeen nu ko di nu déglu ñoo ngi sant caméraman yëpp di sant réalisateur bi Alioune Badara bi sant tamit Mansour Sall di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa Amen.